dellusiwaat ak yéen ci jataay yi nga xam ne daayira muxaddamatul xidma moo koy amal koor gu jot ay waxtaan yi amal fii ci jumaa ju mag ji dellusiwaat nañu ak yéen ci bisu fukkeel bi ak ñaar ci jataay bu am solo buñ fas yéenee amal ñu fas yéene ci waxtaanee thème bu am solo lool boo xam ne jamono da koo laaj jamono da koo laaj ci waxtu wu ne rawatine waxtu yii ñu nekk nga xam ne mën nañ ne ñépp a ko soxla doomu aadama bu ne lii ñuy waxtaane tey looy yittewoo la yaag sa njaboot waaye yaag ñi nga nekkal ñépp muy ay teggin yu wuute yoo xam ne yépp dañ koy jële ci ay ndénkaani Serigne Touba ay teggin yu wuute yu ñu war a waxtaane yoo xam ne teggin yooyu yépp ci njàngaleem sëriñ bi ci ndénkaane yi ku baax ki radiyallahu taala anhu euh, mu doon waxtaan woo xam ne waxtaan wu wu yaatu wu tënku lay doon woo xam ne mbokk mi ñu war a àndal ci waxtaan wi fas na ko yéene séddale ci ay tomb yu wuute ndax thème bu yaatu la boo xam ne buñ ne ay teggin yoo xam ne yu wuute la yoo xam ne yépp dañ koy jële ci njàngaleem sëriñ bi dana jaadu lool ñu leeral lan moo di teggin dëgg-dëgg ci yaatal waaye it ay teggin yi nga xam ne nit ki ci boppam moo ko yittewoo moo ko soxla woo ak teggin yi nga xam ne day jéggi nit ki dem ci ñi muy jëflanteen yooyu yëpp nag ci njàngalem sëriñ bi la ak tënk wala tëjte goo xam ne nii moom lay tëje waxtaan waxtaan woo ñu ngi ci fas yéene ànd ak sëriñ Mamor Mbacke xam di mi toog ci suñu wet nga xam ne jataay yi ñu def ci yoon yi miin na ko lool muy ndaw di gëstukat di borom xam-xam te la ko lool macha allah moom lañu war àndal ci jataay bii nii jataay bii ñu toog miin na ko lool jaar na fi ay yoon yoo xam ne def na fi waxtaan ak yeneen jataay yoo xam ne nii jataay yu mag lay doon ci ëtt yoon wi sëriñ Mamor moomu lañ fas yéene àndal ci waxtaan woowu mbokk yi nuy ñaan yàlla mu may ko ak dëgër ba lii mu waaj mu fas ne ko joxe ci anam bu jaar yoon waaye ñi koy diglu yit jariñu ci bu baax a baax a baax kon ngir bañ a guddal lañuy bàyyee kàddu gi sëriñ Mamor Mbàkke am di bismillah sëriñ bi aouzu billahi min ashaytaani bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima asalaamaaleykum wa ngi nuyu bu baax mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi fi nekk yépp di julli ci bi sallallahu alayhi wa di ko ñaanal xéewal di ñaanal sëriñ bi suñu borom dolli ko ngërëm dolli ko tawféex dolli ko ay daraja di jégalu bu baax ci kàddu yi ñuy yëkkati fii ci jotaay bi ndax xam naa dañ bëgg a soññu rek sax moo tax ñu wooñu fii waaye du xam-xam du daraja ju waroon a tax ñu toog fi di wax bu ñu ko jaaroon ci yoon sax bu ñu ñëwee dañuy bokk ci ñuy diglu rek te ca ginnaaw a ginnaaw sax lañuy ñuy toog bu boobaa. waaye xëy na dañ ñoo bëgg a soññ rek moo tax bu ko defee li ñuy tàmbale rek mooy di ñaanal Maulana Cheikh Mouhamadul Muntaqa suñu borom yàggal ko fi dolli ko wér dolli ko kàttan defal ko féex ba mbooleem yéene yi ma am yépp ngir liggéeyal sëriñ bi mu def ko ci anam gi ma ko bëggee di yëkkati ay kàddu yu cant di ko teg ci loxo daayiratu Muxaddamatul Xidma gi nga xam ne ñooy taxawee jotaay bi ñooy taxawee jotaay yi ci koor gi ak yu ko jiitu muy daayira boo xam ne ñoom la sëriñ bi teg ci seen loxo lépp lu jëm ci jumaa ji ak lu ci aju ñu di ko taxawu ñu leen di ñaanal suñu borom defal leen xéwal baax ak tawféex nuyoo boobu nag ñu di teg ci ki jiite daayira bi muy suñu nijaay di suñu kilifa sëriñ Afia so moo ngi ñu mu àndal liggéey bi yépp euh, tomb bi ñuy waxtaane ni ko sëriñ Murtada waxee daanaka li ma ci waroon a ubbee sax moom def na ko muy wax solo si nga xam ne waxtaan wi am na ko ñu ci ndokkeel bu baax waa daayira bi euh, ni mu ko waxee it danañu ko jima tënk rek ndax loo xam ne sëriñ bi waxu ko ci benn fan waxu ko ci menn at waaye ci ay at la ko wax loolu suñu ko bëggee waxtaanee ci ab jotaay ay junju rek lay mën a doon ay junju waaye la muy tegtale dëgg-dëgg deesu koo wax ndax defidul xaj Euh, danañ ko jéem a xaaj nag ci ay tomb yu wuute ci njëlbeen rek ci lu gàtt wax ci ay teggin nu ko sëriñ bi jàngale nu mu ko gisee lu mu ci diggee lu mu wax ne yan yan njëriñ la wax ne moom la am doog a wax ci ay xeeti teggin yoo xam ne nag mën nañ koo tibbee ci ndénkaaneel sëriñ bi euh, yooyu it euh, mën nañ ci am yoo xam ne kenn ku nekk da ko war ci boppam mu war koo sàmmanteel ak yoo xam ne mbooloo mépp la war ñu war koo sàmmanteel su ko defee danañ ci am ñeenti xaaju bokkut yoo xam ne ku ne war na koo sàmmonteel yoo xam ne ñuy way dencante yu war nañ koo sàmmonteel yoo xam ne nit ku ne war na koo sàmmonteel ak mi jëflanteel ak biñ ci mujj nag muy ñi yilife ak ñi yilif teggin yoo xam ne war nañ koo sàmmonteel ci seen biir ngir jàmm mën a am ci seen biir bu ko defee ji ma tëj waxtaane bu fekkee xaj na ci waxtu yi ndénkaan yooyu sëriñ Murtadaa di wax nag ne ci lañuy ñuy jëlee teggin yooyu suñu ko waxee li ñu ci jublu rek mooy yoo xam ne sëriñ bi da ko da ko daa def di ko jëme ci taalibe yi moo xam yu mbind la wala yoo xam ne da koo wax mag ñi dégg ko jottali ko walla da koo wax ñu dégg ko bindaat ko ñoom ci seen biir kon yooyu yëpp mënees na cee mënees na cee jëlee euh, ndénkaan yooyu niñ ko xamee ay teggin doon lu am solo lool ci lislaam ci boppam rek ndax ay teggin bu ñu ko waxee rek ay xel dem ci jikko yu rafet te lislaam dafa fonkoon lool ay jikko ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi alxuraan di tudd liggéey bi ko fi indi bi mu tuddee ne dafa ñëw indi alxuraan laataa muy wax jàngal taalibe sax sa saxaaba yi dafa wax ne day defar seeni jikko da leen di yar wallazi baasa fi lummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayaatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaaba wal xikma wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaaba wal hikma day defar seen jikko di leen yar boole ci di leen jàngal te bu ngeen xoolee ci biir lislaam it mbooleem ponk lislaam yi nga xam ne jullit bi mënu ko ñàkk sàmmonteel li fekk mi ngi koy man ginnaaw bu seeree ne amul benn buur bu dul yàlla seeree ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom a ko yabal bu ci nekk rek bu ñu ko tuddalee jikko la ñuy teg ci wet gi jikko yu rafet bu ngeen xoolee julli inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar julli diggante ki koy def day dox seen digganteem ak def lu ñaaw ak yi nga xam ne moom la suñu borom tere julli dëgg-dëgg koor gi laallakum tattaxuun ñu mën cee jële ak ragal yàlla buñ demee ci azaka xuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa bi biha ñu mën cee jële xol yu laab bëggante am ci diggante way ñàkk yeeg ñi nga xam ne dañoo am ñi amit mën a fàttaliku ne am na ñu suñu borom bind ñoo xam ne baaxewu leen li mu leen baaxee ñoom ak yudut yooyu yuñ ci mën a jàngate buñ ñëwee ci xaj fala rafasa wala fusuuxa wala jidaala fil xaj lislaam gépp yëpp rek ay jikko yu rafet la ay jikko yu rafet moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne innama bu'istu li utammima makaarima al axlaaq man kat lenn rek moo tax ñu indi ma fi innama ci adwaatul xasr la bokk yoo xam ne day tënk lenn rek moo ma fi indi mooy mottali jikko yu baax yooyu nga xam ne ku fi mas a ñëw te daa woote ci ci turu yàlla ci nga daa woote damaa ñëw ngir mottali ko mu mat Mm, kon loolu rek dana wane teggin solo si nga xam ne am na ko ci biir lislaam ndax bu ñu waxee teggin rek mooy ay jikko yu rafet Cheikhul Xadim radiyallahu anhu di suñu bunt ci lislaam googu ñuy wax bi mu ñëwee ndigal li mu njëkk a jot ci woote ci Mbàkke Kajoor xam ngeen li ñu ko njëkk wax mooy rabbi asxaabaka bil himma sa gaa yi na nga leen yar nag te yar leen ci yit ci yitte ju yar leen rek ci xam bi nga daa jàngale nañu koy jëfe léegi kon li ñu ko njëkk a wax mooy na dugal yar ku tudd yar tudd ay teggin ak yudul dul yooyu euh, teggin yooyu sëriñ bi jàngal nañ ko jàngale na ko ci anam yu wuute jàngale na ko ci barab yu wuute bu ñu demee ci téere bi ñu ne na jox daayil xaaj da koo tënk ci ñetti mbir ne ay teggin rek mooy képp koo xam ne moo la mag nga jox ko cër képp koo xam ne yaa ko mag nga yërëm ko képp koo xam ne da ngeen a maase nga def ko ni nga def sa bopp tariqatul adabi rahmatu saghir kal abi wal ummi wa tawxirul kabir wa jaalu mislika ka nafsika sawa li ajli xaaliqin ala arshi sawa ak yu dul yooyu yoo xam ne sëriñ bi jàngal na ko ci teggin am na feneen fu mu ko tënkaat sax ne mën nga ne rek lépp loo xool mu rafet nga def ko loolu ciy teggin la bokk lépp loo xool mu ñaaw nga ba ko loolu ciy teggin la bokk fi'luka ma nazarta bi istihsaani wa tarku ma nazarta bi istihjaani loolu rek tënk na euh, li ñuy wax lépp ci lu jëm ci civisme ak bonne conduite concept yooyu yëpp ñuy wax lii sëriñ bi wax ci ñeenti baat yi dafa tënku ci biiram mu doon lu bëri ay ngëneel loolu moom ay teggin sëriñ bi wax na ne lépp lu nit mën a jëlee di ko ndamoo ci kaw suuf ay teggin mooy li ci ëpp solo euh, wa huwa fi daarayni xayru kanzi wa xayru maatazza wax ne kon bépp trésor bu nit mën lu muy ndamoo ci kaw yi moroomam ay teggin moo ci ëpp solo xam ngeen sax sëñ bi ñett yi muy tudd ne ñooy ñooy ñooy ñooy trésoram ñooy ay mbiram yi nga xam ne daal ñooy ñooy dëxañteefam benn bi ay teggin la kanzil kitaabu wal xadiisu wal adab laa jamoo fiddatin walla jamoo zahab alxuraan jëfe sunna si yonent boole ci ay teggin ne ñett yooyu mooy mbiram euh, am naa solo lool ndax sëriñ bi waxoon na ne lii muy woote lépp muy yoon wi ñetti mbir rek la mooy xam-xam xam li nga war a xam di ko jëfee ni nga ko war a jëfee boole ci ay teggin yu rafet ñetti ñett yooyu jële sëñ bi tabax yoonu murid yi al umuru ala salaasati aqsaam al ilmu naafiu wal amalu saalih wal aadaabul mardiya ne ñett yooyu rek mu li muy woote lépp loolu rek la xam li nga war a xam sa diine di ko jëfee ni nga ko war a jëfee boole ci ay teggin yu am solo euh, xam ngeen daana wax ne ay teggin yoon yi àggale nit ñi ci suñu borom mi ngi bare ne nooy mbindeef yi ne waaye bi ci gën a jege suñu boroom gën cee gaaw mooy ay teggin yu rafet atturuqul muusilatu ila llaahi taala ala adadi anfaasi alxalaaiq walakin aqrabaha ila llaahi taala al adabul mardi ne wa tasawufu kulluhu adabun moo tax mu daa wax ne képp ku ngeen gis mu jug bëgg a jëm ci suñu borom te jaarewu ko ci ay teggin bu ngeen di wër ku wéradi na ngeen jàpp kooku fa kullu man bi geyrihi raamal wusul li xadratillaahi fa xumrun la nabil képp ku ngeen gis rek mu bëgg a jëm ci suñu borom te jaarewu ko ci ay teggin euh, du dem fenn sëriñ bi jàngal nañu teggin yooyu muy wax ñaata xeet la am mu ne teggin yëpp ñaari xeet rek moo ci am yu dox diggante jaam bi ak boromam ak yu dox diggante jaam bi ak ay moromi jaamam néeg yi dox diggante jaam bi ak boromam ñeent la jëfee ndigalam yi wattandiku tereem yi bu ko defalee xéewal mu sant bu ko tegee am nattu mu muñ ko imtisaalul awaamir wa tinaabu yi wa shukru ala neema wa sabru ala bala ne teggin yi war a wax digganteem ak mbindeef yi ñett rek la mooy ku suñ borom teral mu teral ko ku suñ borom jey mu jey ko keneen ku mu banoon mu bakk noonu takrimu mukram wa sidraj mustadraj wa tarku gayrihima ala xaali xam ngeen ñaari baat yooyu li ko suñ bi tudd bari na lool ku suñ borom teral ak kum jey yaa asiman kulli min sidraji loolu sax suñ bi da koy junj ci xasida yi daan na ko mukarram kuñ jeey de mooy koo xam ne sas woo ko saa boroom sas deselu ca dara baa ñax gum ca bàyyi rek da ko gisut daane waaye moom it la mu bëgg suñu borom boobu ci dara nam ko bëggee amee na ko ne ne kooku mooy mooy ko suñu borom teral ne leen mustadraj kuñ jeey mooy koo xam ne sas wi ko suñu borom sas waxuma la jeexal ko waaye ak ñax sax dagg ko ca daane te teewul la mu bëgg yàlla di ko defal ne loolu nag ab jay la sëriñ bi daan na ko firi lu bari moo tax mu daa wax suñu borom mu musal ko ci lépp lu lu lu jëm ci ab jay euh, ndax mooy rek bu ñu gisee koo xam ne tegewut ci suñu borom yoon wi suñu borom rëdd ba noppi li ñuy xool ñun di ko bëgg ci kaw suuf yépp mu di ko am na ko bëggee yooyu jay leen suñu borom di jay ngir bu ëllëgee mu gën leen a mën a yey moo tax sëñ bi daa wax ne teggin yooyu moo am diggante jaam bi ak boromam ak digganteem ak moroomi jaamam na ngeen ciy def seen kéem kàttan te addabu fi fi alanin wa sirri maal ali wa xalqihi bil birri tomb bu njëkk bi muy teggi ni nga xam ne ku ne rek war na ko sàmmanteel yu yu yu yu fardi yàlla daal yu individuel bi ci jiitu mooy teggi nii jëm ci diggante nit ki ak boppam bi ci jiitu mooy nit ki teggi nii mu war a diggante ak moom boppam te mooy mu fexe ba di sànq waxtoom sànq waxtoom mu bañ koo def fexe ba du ko sànq di sàmm waxtoom te bañ koo sànq xam ngeen sëñ bi wax nañ ci masaalikul jinaan ne nooyi gune gu nit ki di nooyi gune lu lu cher la loo xam ne nit ki mën na cee fàggu lu ne bu ëllëgee ci bu ko defee ci ak topp yàlla daan na gépp nooyi gu nit nooyi te defu ci ak topp yàlla loolu pertaange la bu bu ak rëccu la koy jural daan na loolu mooy defu ci topp yàlla waaye defu ci mooy yàlla waaye su dee da cee defu mooy yàlla nag moom loolu mooy dëggi dëggi perte bu ëllëgee yomal xiyam ndax xam ngeen dundug nit ki ay noo la yu ñu tegale maanaam nangami nooyi la nit ki am ci kaw suuf yoo xam ne fu mu jeexee fa la ak dundam yam fu mu jeexee rek fa la yam sëñ bi ne genn gu ne nag nit ki da ko war di sàmm ba di fexe ba di ko def ci lu neex yàlla euh, mooy fexe rek baal ba sa nga nga sax ci li ñuy wax yoonu yàlla yoonu aljana sëñ bi waxoon na kenn ci mag ñi ne ko ndax xamee ngeen ku nekk ci yoonu aljana ak ku nekk ci yoonu safaan kooku ne ko loolu de moom yombu ta xam mu ne ko ah kay yomb naa xam ne ko dépp jëf jëpp jëf yoo xam ne yaa ngi koy jëf teem leer la ne bu dee ne woon salaamaaleykum nga ne ko bismillah xamal ne loolu jëfi waa aljana la yëpp jëf joo xam ne yaa ngi koy jëf te bu aljana bu dee nuyoo woon nga ne ko may ma ma defaru xamal ne loolu jëfi waa sawara la kon na ngeen fexe ba sax yéen ci jëfi jëfi waa aljana muy baat yu gàtt waaye yu tënk njàngale mu mu baree bari daana leen junj ci kon teggin bi ñu ci jiitu mooy yi nit ki war a sàmmanteel digganteem ak ay mbokkam ak digganteem ak ñi nga xam ne rek ñoom lay dundal sëriñ bi wax na ci masaalikul jinaan ne nit ki na fonk ay waajuram fonk ay baayam yu ndaw fonk ay nijaayam fonk ay magam fonk mbooleem koo xam ne rek jegeñaal jegeñaaleem la mbokkam yépp wa kullu man sama alayka mu wa kullu man saxaru anka tarxamu képp koo xam ne moo la mag nga jox ko cër képp koo xam ne yaa ko mag euh, nga yërëm ko loolu mën naa génn sax ci biir mbokk gi mën naa dugg ba ci liggéey yi ñuy séq fi mu ne ku ci sa kilifa rek nga jox ko cërub kilifteef gi koo xam ne yaa ko ci yilifit nga koy xool euh, bëtub yërmande bi daana leen junj it na leen bokk na ci ay teggin yi nit ki war a sàmmonteeg nit ñëpp mooy koo gis nga jàpp ne yaa koo amel cër boo ko war a jox wa min taaddubika allaa tanzura xaqan li nafsika ala shaxsin tara képp koo gis rek jàppal ne yaa ko amel cër ak teggin yoo xam ne war nga koo jox bal yatabir min nafsika al aadaba wala tutaaliban bi loolu la yaree woon mag ñi ba ku ci nekk boo dajee ak sa morom da jàpp ne yaa ko war a yëkkati yaa ko war a màggal xam nga nettali nañ ne fii ci armeeli Tuubaa yi sëñ Mourou Moussa daje na fi ci ab denc moo ak sëñ Mbàkke Buso ak sëñ Abdou Rahman Lo ak ñenn ci mag ñi waajur soxna Fatma lañ doon denc sëñ Mbàkke bi mu ko taxaw ba noppi sëñ Mourou mooy xalif général de Mourides ci jamono jooju indi otoom jóge Daaru dos bi ñu dencee ba noppi sëñ Mbàkke ak sëñ Abdou Rahman Lo indi wuñu oto mu dox ak tànkam moom ñibbi ne sëfoor bi na yóbbu sëñ Mbàkke ak sëñ Daam Abdourahmane moom mu jiite murit yi mu dox ak tànkam moom dem ñibbi ne ko yóbbul sëñ Mbàkke ak sëñ sëñ Daam safar bi dem ci sëñ Mbàkke ne ko sëñ naa la yóbbu ak sëñ Daam sëñ Mbàkke bu su ne ko keroog bi sëñ bi di woote ci Mbàkke Kajoor daa fekk mu yónni ma ba fekkuma fa sëñ Daam moom a njëkkoon a jé moom ma njëkk a jébulu keroog kon demal nga jëkk koo yóbbu ba noppi mu dem ci siñ sëñ Daam ne ko sëñ sëñ Moodu dane woon naa la yóbbu ne wax ko li sëñ Mbàkke wax mu ne ko déedéet demal yóbbu sëñ Mbàkke ba noppi ndax moom moo ma gën a jege sëriñ bi nga xam ne kenn ku nekk ci ñoom fexe nga ba xool buntu bu war a tax nga yëkkati sa morom loolu la ñu sëriñ bi jàngaloon moo tax mu naan bal yaxtabir min nafsika al aadaba wala tutaaliban bihi al ashaaba koo gis rek jàppal ne yaa ko yaa ko war a yëkkati tënk bi rek mooy wakun maa naasi jamian dahraka kama tuhibu an yakunu maaka nit ku ne rek noo bëgg mu def la ko dee ko def noonu fu ne loolu bu ko ñëpp doxewoon ak jàmm dayam koo gis foo bëgg mu teg la fa rek teg ko fa teggin yi ci yi ci des mooy sëriñ bi yum ñu jàngal ci nuyoo wax na ne saa boo ñëwee fekk nit mu toog ak ku mën a doon yow mi nga xam ne yaa ko fekk si na nga xam ne yaa ko war a nuyu saa la nit nuyoo it nanga ko fay te na nga jàmmante ak moom wa in yakun minhu tida salaami faruddahu alayhi bil kalaami day di wax sax ci bu ñuy joxante loxo teggin yi nga xam ne war nañ ko sàmmanteel wax na ñett a ngi nii yoo xam ne ci teggi ni ñu war di sàmmanteel bu ñuy joxante loxo ci la bokk bi ci jiitu mooy sooy nuyu nit wa haysuma saafaxtahu fa ma naa makkini yumnaaka min yumnaahu bil mustahsani booy nuyu nit boo ko joxee loxo na nga ko nuyu te loxoom ba mu yëg ne yëg nga ne yaa ngi koy nuyu mooy noonu suñ di nuyoo ñëpp rek xam ne bu la nuyoo nga yëg ne yëg na ne yow yow doomu aadama nga daal waaw yëg na loolu loolu sëñ bi da ko daan wax ne ixtitaaful yat dañ koy bañ maanaam joxe loxo rek rocc ko wala joxe ay ceti baaraam loolu bokkut ci ay teggin yi sëriñ bi daan jàngale daana waxit ne wa misluhu tarkul kalaam di nuyu nit jox ko loxo rek waxoo moom jàmmante woo defoo dara lool it bokkut ci teggin yi nga xam ne moom lañu digle nee na niki noon it bokk na ci ay teggin ci boo joxe loxo sumal musaafahatu bil yadayni min jumlatil aadaabi misla zeyni jox jox nit ñaari loxo loolu ci ay teggin la bokk di nuyu nit nuyu kook sa ñaari loxo loolu ci ay teggin la bokk bi ci tegee mooy teggi yi ñu war a sàmmanteel bu ñu nekkee ci ab jotaay jotaay bu ñu nekk bu ne teggin yi ñu fa war a sàmmanteel sëriñ bi wax ne saa boo nekkee ci jotaay na dal bul bari bi yëngatu bul bëri wax ju bëri dolli ci na nga néewal lool say reetaan te wattandiko nag di xaqataay ak di yooxu ci kaw bëri na ñoo xam ne bu ñu nekkoon fële ci ay jotaay seeni kàddu ngay njëkk a dégg bu ñuy xaqataay te sëñ bi waxoon na ne wa kasratu daxki tumitul xalba fa qallilan na daxka turdi rabba ne ree ju bari di tex ju bari day day rey xolub jullit wala ayaasu billah te jullit bu xolam dee mooy dootu waaru dootu fàttali ko ëllëg xel ma dootu dem ci borom xam ngeen sëñ bi daan na wax ne am na ñett nekk ci alxuraan yoo xam ne moo tax ba moom di ree di tex texi talu ko ñetti kullu yi nekk ci alxuraan ñoo tax taluma ko kullu nafsin zaiqatul mawt kullu man alayha faan ak kullu shay'in haalikun illa wajha bakkan bu ne dana faatu lu dul suñ borom dana fi mujj jóge ñëpp dana fi jóge ba mu des yàlla kese subhanahu wa taala sëriñ bi wax ne ñetti kull yooyu kenn du leen xam di ree bay tex texi ndax danga xam ne lu jar ree néew ci kaw suuf si euh, beneen bi ci tegee mooy teggin yoo xam ne sëriñ bi jàngale na ko ñu war koo sàmmanteel buñ toogee ku ñu mag wala suñu kilifa buñ toogee suñ kilifa rek moo xam kilifa ak diine wala gu mën a doon wala sa mbokk mu wax ne saa boo xamee ne yaa ngi nekk ak sa kilifa bul toogandoog moom ci kaw lu dul ne ngànt moo ko waral lu dul ne moo ko waral lu mel ni ngeen di bokk di tukki wala foo xam ne du fees mën a toog ci suuf waaye bu dul loolu bul toogandoog sa kilifa ci kaw mukk euh, wax na yit na ngay dal bu ngeen bokkee jotaay bul ko sës tamit bul bul ko sësu laa tajlees mu laa siqan bul ñëw ba sës sa kilifa loolu nag euh, bokk na ci daal ci tegee ni nga xam ne sëriñ bi sëriñ bi digg na ko waaw kilifa yi daal war nañ di leen may tuuti espace léeg-léeg nag am na kilifa yoo xam ne ñi leen di xàllal sax ñu leen di xatal wax dëgg yàlla ñuy wax may leen sëñ bi ñooñu buñ mayuñ sëñ bi rek sëñ bi feex fi ne sëñ bi nag wax na ne boo nekkee sa kilifa sax bul ñëw ba sës ko rek dee ko dànd tuuti mooy ni murid di daan nekk ak sëñ bu mag bi rek nee na boo nekkee boo toogee kilifa it bul bëri looy gestu bul ko xool jàkk ci ay bët kilifa kenn du nekk moom di ko xool jàkk ay bët del lamsal wala ngay sëgg rek fekk waxul jëlu ngay wax saa bu waxee nga wax euh, kem lam la laaj rek teggi ni ci tege mooy yu ñu war a sàmmoonteel bu ñu dee def li ñuy wax zikr wala wirt moo xam dañuy jàng alxuraan wala ñuy jàng xasida wala ñuy wird maaxuus wala ñuy wird leneen salaatu ala nabi istighfar sëriñ bi wax ne am na ñett yoo xam ne yu ñu wax di sàmmanteel la waudda min aadaabi zikri zakiri juluusu abdin fi makaanin taahiri mustaqbilal qiblati za tarabbu'i aw mutawarrikan kaman solla fa'i ne booy toog di wird ñett yi booy toog di zikr di tudd yàlla rek jàng alxuraan lu mën a doon ñett yi na nga ko sàmmante sa kem kattan nekk fu laab jublu penku ak nga ferankulaayu wala nga toog booy julli ni ngay toogee toogin woowu la ñuy toog bu ñuy jàng alxuraan wala ñuy jàng xasida wala yeneen ferankulaayu wala nga toog ni ngay toogee booy julli ñaan googu sëriñ bi waxoon na ci ay teggin yoo xam ne wax na ne nañ koy sàmmanteel ne képp ku bëgg ñaan suñu borom dara ginnaaw bu ñu sàmmanteel yëm tuddoon ca masaalik xam nga masaalik tuddoon na fa booy tàmbali musuju seytaane julli ci yonent bi sallallahu kañ suñu borom tagg ko tudd màggam ngi jéggalu ko wax sa soxla ne waaye ñett a ngi nii yoo xam ne ñett ñi moom jëruñuy sonn di ñaan suñu borom du nangu seenu ñaan mukk ne ñett a ñoo xam ne suñu borom du nangu seenu ñaan salaasatun daawatuhum laa tuqbalu qataan kama an nabii naqalu mukassirul xiibati aakilul xaraam zul xilli wal xasadi aydan lil anam ne ku ku bari ab jëw koo xam ne day jëw jëw bu bari koo xam ne day lekk alal ju koo xam ne dafa amee ci xolam dara ci soxor ak ñaan jërul muy ñaan suñ borom du nangu seenu ñaan yooyu bokk na ci teggin yi nga xam ne sëriñ bi wax na ne war nañ koy sàmmoonteel <clears throat> teggin yi ci des yi ci topp mooy saa bu ñu dee fàgg lu leew bu ñu dee liggéey sëriñ bi jàngal nañu ay teggin ñu war a sàmmoonteel mooy rek ñu xam ne euh, bu ñu dee sàkk lu leew nañ fexe ba yam ci li nga xam ne dafa dagan fexe ba suñu biir ñu bañ cee dugal dara loo xam ne lu xaraam la sëñ bi jàngal nañu ko ci fu bari ci mbindam bu demee ci Munawwirus Sudur mu ngi wax naan laa tudxilil xaraama fil batni wala ma fihi shubhatun balil xilla wila fakul xalaalan in aradta an tutia allaha wa rasula ya hazal mutia saa boo bëggee topp yàlla yomb la saxal ci di lekk lu lew ndax nit ki saa bu lekkee lu xaraam du mën a jaamu yàlla baalum jaamu yàlla suñu borom du ko nangu Euh, loolu xam ngeen ñu war nañ cee bàyyi xel bu baax jamono ji jëflante bi ñu jëflante banque yi xeeti carte yi nga xam ne moo am te bari lool suñu soxna Abdou doon na ko waxtaanee fan yi ba ci jëflante yi ñu jëflante ci biir ci biir mbokk yi muy lu jëm ci wàllu ndayale yeeg bàyyale yeeg nijaayale yooyu nga xam ne wax dëgg xaaj bépp daganut yooyu yëpp jullit ñi war nañ koo wattandiku ñoom te xam ne bokku ci liñ leen digal bokk na ci yim daa waxit buñ dee fàggu buñ dee liggéey di fàggalu nañ ko sàmmoonteel mooy di wàkkilu ci yàlla te xam ne nag jëmmi wërsëg yi moom suñu borom noppi na ci wërsëg yi suñu borom noppi na ci moo tax mu daan wa annahu la satanaalu illa maa laka xat xaddara rabbun jalla na nga xam ne kat loo xër-xër mënoo fexe ba am ci wërsëg lu dul la suñu borom li suñu borom dogal ne moom nga war a am li annahu jafafa zaaka alxalama bi kulli cheyin kainin wa xasama suñu borom digg yi moom noppi na ci ku ne lim lay sédd Euh, ku ne lii sa alal ak lii sa wërsëg suñu borom noppi na ci xam nga ñaar yooyu bokkut alal ak wërsëg bokkut alal mooy li nga am wërsëg mooy li nga jëfandikoo nit ki mën naa yor ay milliards muy alalam waaye lim ci lekk lim ci def lu baax loola moo cay wërsëgam li ci des boo fi jógee ñeneen donn ko seen wërsëg la moo tax sëriñ bi daa wax ne euh, buñ dee liggéey nañ ko nañ ko nañ ci sàmmonteen ndigal suñu borom yi te gis ngeen léegi dem bi gone yi dem ci gaal gi Sénégal kenn xamul ñaata nit la ci ñàkk ci gone yoo xam ne ndeysaan dañoo demoon wuti wuti lañ doon def waaye nag xër gu ëpp yóbbee na ñenn ñi ñu jaare ko ci yoon yoo xam ne euh, wóorut ba ñu bari ñàkk seeni bakkan te sëñ bi waxoon na ne am na ñeent yoo xam ne suñ borom noppi na ci wa faragal mawla min arba'in ajal wa xuluqin rizqin wa xalqin xul ajal ne ñeent yi suñu borom noppi na ci digg yi ñuy dund ci kaw suuf wërsëg yi ñu fi am jëf yi ñu fi jëf ak suñu mujj ëllëg ndax dañuy tax ak duñ tax yooyu suñu borom noppi na ci te doot ci dellu ginnaaw ne Euh, na nga xam yow murid bi rek ne wala yakunu ghayru ma yuridu wala xarasta ayyuhal murid loo xër-xërit na nga xam ne li suñu borom tegal kese moom ngay moom munoo fi amee lu lu weesu lool te dañuy wax ne ku ku yàkkamti aw aminam aw wutiinam mën naa bañ a rafet ku yàkkamti aw aminam aw wutiinam mën naa bañ a rafet te tënk bi rek mooy kaw suuf gii ñu ne nit mënu fee muusa muusa muus ba jëlee fi wenn fepp woo xam ne bokkuti wërsëgam munta ne nit munu fee dofa dofa dof tamit ba génn àdduna wàcc fi wenn fepp boo xam ne ci wërsëgam la bokkoon mënut a nekk tamit bala nga fay jóge li nga fi am lépp da nga ci jot fi ne ba ci sàcc bi sax li ma ne woon di ko sàcc daa yàkkamti waaye bu dee ci wërsëgam la bokk bu toogoon dana ci jot kon yooyu yëpp euh, sëriñ bi daana ko jàngale ngir bu ñu dee fàggulu lewit moo tax sax gis ngeen tur yi mu koy tuddee du ko tuddee amal muy liggéey waaye kasbul xalaal la koy tuddee talabul xalaal iltimaasul xalaal muy sàkk lu beneen bi ci topp muy teggin ñu war a sàmmoonteel suñu diggante ak keneen koo xam ne xëy na wuute nañ ay gisin wala bokkuñu daal fu ñu nekk bi ci jiitu sëriñ bi wax ne saa boo xamee ne nit dalaa xas wax la lu ñaaw teggin yi nga war a sàmmoonteel nit xas na la wax la loo loo xam ne wax ju ñaaw la nee na bul meer mukk ngir wax juñ la wax ndax ku la wax wax ju ñaaw xoolal rek sa bopp lim la wax lim la wax bu dee dëgg la wax ju ñaaw waaye xam nga ne lii mu wax dëgg la nee na xamal ne bu boobaa nga góor góorlu ba jikko jooju dañ ci yow moo ëpp njëriñ ci yow ngay mere kooku baa ngay ji ma xuloog mu nee na ni ngay def rek mooy jàppal ne suñ borom moo bëgg a wax ak yow jaaree ko ci kii bëgg laa wax ne la jikko jikat jikko ju baaxul la te ngi ci yow fexeel mu dañ nu mu gën a gaawee nee na loolu mooy lim la wax dëgg la waaye bu dee lim la wax it wax ju ñaaw la waaye du dëgg nee na boobu jëru nga ci mer ndax moom li mu wax taqu la fenn te bu ëllëgee dina ko la ak boroomam nee na ni ngay def mooy dangay jàpp ne rek wax ji suñu boroom la bëgg xamal ne la jikko ji la kii waxkat jikko ju baaxut la néewut ci yow waaye fexeel ba bu ko jege fenn nee na boo defee noonu ku la xasit jàmm rek moo ci mujj moo tax sëriñ bi daana tere lool mag ñi ñuy mer di topp seen mer daana leen wax ne boo meree bul ne damay def ba mu faju bul ne damay wax ba mu faju da muñ ba mu ne ndax boo nee damay def ba mu faju day sopp ku sawar a lakk la boo nee damay wax ba mu faju day sopp ku gaynde fàdd la ne boo nee damay muñ ba mu faju nag day mel ne daa sopp ku ndox mu sedd nga naan ko xam ngeen daan ne leen wax ne leen eh, kuy tooñ du mucc kuy fayu du noppalu ne leen te ñu tooñ la nga muñ war ngeen ko jàngee ci man te xam ne doy naa ci misaal ne ndax bu ñu la tooñee nga muñ suñ borom dalay fayul tooñ nga fay la muñ nga kon kuñ ci tooñ te na muñ te bu mu topp meram bii ci tegee mooy teggi ni ñu war a jëflanteel bu ñu nit safaanu bi jàll mooy bu la nit taggee nag tagg la wax ci yow jikko yu rafet rafet sëriñ bi nee na bu nit ñëwee tagg la wax ci yow jikko yu rafet bul woru ci lim wax xoolal bu baax lim la wax nga xool sa bopp bu la leeree na jikko yii mu wax mu ngi ci yow na ko sant yàlla te def sa kem kàttan ba sax ci jikko yooyu ñu la wax te xam ne suñu borom la ko baaxee bu dee nag xool nga ne jikko yi mu wax li muy rafet rafet sa diggante ak yàlla xam nga ne néewul ci yow nee na xamal ne ñu lay tudd di tudd jikko yooyu du tax mukk mu nekk ci yow li fekk jikko woo ko comme ni nga xamee ne boo wéetoon di xalaat ci ñam yi gën a neex fekk da xiif du tax mukk nga suur fekk lekkoo ci ne ni ngay def rek mooy jàppal ne suñ borom ma bëgg a wax ak yow jaaree ko ci kii ne la jikko yi ñu lay tuddal kat newut ci yow te jikko yu baax yi la ci jikko yi nit ñu baax ñi la bokk kon góorgóorlu ci ngeen mën a bokk ci gaañu baax daana wax it ne képp koo xam ne dañoo wuuteeg moom suñu mbokkum jullit mu ne rek buñ gisee ci moom ayib it nañ fas yéene ne ne képp ku gis ci yéen ayib ci menn mbokkum jullitam na fas ci xolam ne it ayib jii de du feeñee ci man mukk ba àdduna di tukk man raa minkum fi axihi ayban falyanwi allaa yazhara dalika al aybu min nafsihi minhu awdu na na fas ci xolam ne lii kat du feeñee ci man mukk daana wax sax ne ñi nga xam ne dañuy mooy yàlla na ngeen fexe ba teggin yi ngeen di jëflante seen diggante ak ñoom mooy ngeen di leen laabire ak fexe ba tegaat leen ci yoon waaye bu leen leen di jéppi wala ngeen di leen ñaan yàlla ne waalam bi anna shafaqata ala al-aasi afdalu min ad-duaai alayhi ki nga xam ne day mooy yàlla nga ñeewante ko te yërëm ko moo gën nga di ko ñaan yàlla daanañu wax ay teggin yu ñu war a sàmmoonteel ci ci misaal bu ñu doon li ñuy wax waxtaan maam débat ñaar ñoo xam ne xëy na bokkuñu ay kenn ko nekk di wax ngir yeey sa moroom sëriñ bi daan na wax ne booy wax ak nit ba mu wax loo xam ne amut wala jàpp nga ne demeewut noonu bu ko wax mukk ne ko li nga wax du dëgg bu ko wax it ne ko li nga wax amut nee na donte yaa ko mag xoolal rek waxin bu gën a rafet nga wax ko ko ne ko xëy na ah man de kon xëy na maa juum waaye jàppe ko woon nii wala man damaa foogoon ne nangam waaye bul wax ak moom mukk di ko wax waxin woo xam ne dana ca gisee boppam ne saa bu ngeen di waxtaanee ci seen biir bu ngeen wuutee ay gisi de leen waxee ci anam googu nee na saa bu ngeen gisee nag koo xam ne werante moo ko tax a jóg mooy teggi ni ñu war a sàmmoonteel koo xam ne kii moom xam nañ ne dëgg taxu koo jóg werante rek moo ko tax a jóg sëñ bi nee na bu nit jëm see ci yéen tam leneen li ñuy wax ji daal ak miraar rek moo ko tax a jóg bu leen werante ak moom waaye diglu leen nag li muy wax bu baax a baax su ngeen xamee ne yéen ni ci dëgg fa in kuntum ala falaatu fala tujibu bu ngeen xamee ne yéen nekk ci dëgg bu leen ko tontu ndax xam ngeen ne yéen ne ci dëgg waaye su ngeen xamee ne nag nekku leen ci dëgg fa tuubu ilallaahi na ngeen gaaw tuubal yàlla su ngeen demee ba xam ne rek ah, nekku leen ci dëgg fa tuubu ila aalimil xayb wa shahaadati ndax nag yàlla dëgg la bëgg donte dafa génne ci gémmiñu keneen waaye bu nit de werante ak wax leen loo xam ne xam ngeen ne moo ne ci dëgg nangeen ngeen tuubal yàlla te dem ci li nga xam ne nag mooy dëgg bi ju topp muy teggi ni ñu war a sàmmoonteel yi taalibe bi war a sàmmoonteel digganteem ak nit ñu baax ñi nit ñu baax ñëpp rek maanaam kii nit ku baax la koo xam ne du sab sëriñ waaye ki nit ñu baax ñi la bokk sëñ bi wax na ñett lañu war a sàmmanteeg ñoom bi ci njëkk mooy al i'tiqaadu taam wa xusnu zanni wa adamul i'tiraad mooy nga nangul leen nangu gu mat sëkk rafet njort ci ñoom bañ leen a diingat nee na képp nit ku baax ku ne ñetti teggin yooyu nga war a doxale seen diggante ak ñoom bu dee sab sëriñ ñett yooyu moom waxaale woon ko xëy na di nga ci dolli jëfe ay ndigalam ak bañ koo jiitu bañ jiitu sab sëriñ loolu mooy ne rek lépp loo dégg mu jóge ci nit ñu baax ñi donte mënoo koo firi nga delloo ko li sëriñ bi waxoon ca Masaalikul Jinaan ne saa bu ngeen gisee wax ju ngeen xamul ci waxi nit ñu baax ñi na ngeen ko delloo ci la Abdul Latif waxoon ne man kat waxi gaa ñu baax ñi euh, xawma lu mu firi waxi wàllu yi ndax man fii laa ne ñoom ñu ne feneen kalaama lawliyaa lastu afhamu li annani ana ana wa hum humu ne Abdul Latif daan wax ne wàllu yi daal man seeni wax du ma ci dugg ndax man daa am fu ma ne di fa dund ñoom ñoo am feneen fu ñu nekk ñoom bokkuñ fu ñu nekk moo tax seeni wax du ma ci dugg moo tax saa boo déggee wax ju jóge ci nit ku baax donte du du sab sëriñ it li sëriñ bi digle rek nga rafet ci njot te ci waaye bul ko weddi bul ko bul ko diingat daana wax it teggi niñ war a sàmmonte diggante suñu diggante ak ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy ñu yor yeneen tarixa xëy xam nga ci ko Masaalikul naan tudd na sax Cheikh Ahmad Tijaani wirdu Tijaani ak wirdu Xaadir yi ni ak wirdu yudut yooyu wu ci borom jàpp rek wu ci taalibe bi jàpp ci lu wér da koy àggale suñu borom ne ñoom ñëpp ci dëgg lañ nekk daal ne fa kulluhum yad'u al muridina ila taati rabbil arshi xaysuma jala bil istiqaamati fala tasxar ahad minhum wala tunkir alayhim abad ne képp ko ci gis ci nit ñu baax ñooñu donte duñ say sëriñ xamal na ñoom ñëpp ci lu wér lañ ne ci lu baax lañ ne ci siraatal mustaqim lañ daa woote ci yoonu njub kon bu leen diingat bu leen xeeb bu leen xarab yooyu sëriñ bi daana ko daana ko daana ko soññe ci ñu sàmmonteek moom ci suñu diggante ak ñi nga xam ne duñ suñuy sëriñ waaye ay ay nit yàlla lañ tomb bi ci topp muy teggi yi ñu war a sàmmoonteel ci diggante way dencante yi yi soxna si ameel borom kër bi yi boroom kër bi amee soxnaam sëriñ bi bu dee yi soxna si war a sàmmonteel juñu na ci lu bari xam ne bu ñu demee ci ndénkaale soxna Penda Diop nekkoon soxna ci sëñ Mor Anta Sali mi nga xam ne rakki sëñ si ci sëñ Mbàkke Kajoor mii rakki sëñ Mor Anta Sali doon bàyyi ñu doo ci sëriñ bi juñu na ko ci ne ko ci biir bi mu ko waxee yi war jigéen ba nopp bi mu koy wax yi mu war digganteem ak ab sëriñam ne ko nag bul sàkku ko ngërëmul yàlla te sàkkuwaale woo sa sa ngërëmul borom kër bu ragal yàlla boobu nga nekkal te xam ne kat jigéen ñi ñoom jigéen ñi seen jihaad dëgg du ci jël ay jaasi di xeex waaye mi ngi ci sàkku seen ngërëm yi borom kër yu baax yi nekkal ne ko fépp saa soo xamee ne borom kër bu ñu tegee ci yoon gërëm na soxnaam suñ borom dina gërëm soxna sos bépp boroom kër bu tegee ci yoon te gërëmu soxnaam loolu dana yàqal soxna si bu ëllëgee ne ko nag na nga xam ne mbugulum suñ borom kenn mënu cee mucc lu dul ne da ngaa bàyyi ñeent yi ma lay bëgg a wax muy wax lu amut rëy nay ak ñaaw njort ne ko ñeent yi kenn mënut mucc ëllëg lu dul ne da nga koo ba xam ngeen sëñ bi soññ la ba tàyyi soxna yi ci ñu ci ñuy sàmmonte seen diggante ak seen boroom kër am na ku nekkoon ci biir kër sëñ bi koo xam ne ci ñi fi yaroo la bokk ñu joxe woon ko fenn mu dem fa xëy na sëy ba neexut sonn na fa tuuti mu ñëw ci sëñ bi di jàmbat ñëw fekk sëñ bi mu toog mu jàmbata jàmbata jàmbat ba àggal sëñ bi ne ko sëy ñaar rek la coono bu sax dàkk ak naqar wu sax dàkk ne ko tey as gor day nangoo muñ coono ab jullit day nangoo muñ naqar ne ko te boo dee ku ñuy tudd di ma tudd ñaar yooyu di nga ci doon lenn di nga doon góor baa nga nekk jullit faaw mu doon ñaar yépp sox doo ko bokk ci moom da ko wax loolu rek kon loolu mooy bi mu ko defee ba pare soxna sa daa daal tàllal loxoom ne ko ñaanal ma ñaanal ko mu delluwaat ci sëy lool loolu it waaye jur yi war nañ ci dimbalee seenu njaboot ba di leen soññ ci sëy yi ñu xam ne du bu ñuy woo jigéen naan ko na nga muñ mooy dañoo xam ne la muy fekki du neex moo tax donte góor ñi dañoo war a góorgóorlu it nag loolu sëriñ bi daan na ko daan na ko junj euh, bi ginnaaw bi sax woowoon na ñenn ci mag ñi ne nestali leen ko ne leen ku ci amati ku kuy dem fenn rek na ko defal lii muy ab yóbbalam bu dee boroom kër yi ñoom it teggin yi war seen diggante ak seeni soxna sëriñ bi jàng na ci lu bari wax na ci gàttal fexe na war nañoo fexe bañ jàng seen diine di leen soññ ci yaamu yàlla yërëm leen te di leen ñeewante di leen jàppale xam ngeen sëñ bi waxoon na gaañi ne leen dafa am ñeenti jikko yoo xam ne faw ngeen yor ko doog a mën a yor soxna jigéen ñi faw ngeen yor ñeenti jikkoo doog leen mën a yor jigéen ku ne da koy mënal njëkk di ko muñal di jëllale tey jéggale nee na ñeent yooyu ci la ñuy jigéen di ko muñal da nga koy mënal njëkk di ko muñal di jëllale te jéggale leen soññ ci ñu bañ a xaabaabal ci kilifteef gi nga xam ne borom kër moo ko am ci soxna xam ngeen boroom kër mooy kilifa soxna si waaye sëriñ bi daan leen soññ ci ne buñ ci xaabaabal nag nañ xam ne kilifteef la goog ñu ànd ne faaw mu am ku nekk kilifa góor ñi kilifa soxna yi lu àdduna yàgg-yàgg waaye daan leen soññ ci ñu bañ cee xaabaabal ne leen na ngeen bàyyi kuñ ci jox soxna mu jàpp ne ab jaam lañ ko jox duñ seeni jaam jaam yàlla lañ dañoo bëgg ngeen ànd ci dëgg di jaamu yàlla kon lu ngeen leen di digal na fekk ngeen ne ci lu ngeen leen di tere na fekk ngeen bàyyi ko sëriñ bi loolu la daan diggal góor ñi ñu di ci sàmmante lool ndax léeg-léeg it ñenn ci góor ñi ñu xaabaabal ci kilifteef googu ñu am ci ci soxna yi gis ngeen kooku ñëwoon ci sëriñ bi fekk soxnaam dafa faatu mu ne ko sama soxna dafa faatu jamono yii na ko ñaanal laata sëñ bi wax mu ne ko waaye moom sax nag xam naa ne moom dana baax ndax man gërëm naa ko sëñ bi na ko yow ku la gërëm mu ne teg na ko yow ku la gërëm ba nga naan gërëm naa ko bu ñu naan bu ñu naan gërëmul borom kër daa am borom kër bu tax ñuy wax borom kër bu tege ci yoon Cheikh Rafal waxoon na ko ne ne leen jigéen bu amee ngërëmul borom këram aljanaay këram ne ah doom loolu wax wolof la rek waaye mat naa seetaat ne ndax monsieur gërëm na madame te du tee ñooy dem sawara ñoom ñaar monsieur gërëm na madame te tee ñoom ñaar ñooy ànd dem sawara ne ne bu naan jigéen bu làqee ngërëmul borom këram aljanaay këram day fekk borom kër ba làq ngërëmul yàlla kookaa tax ñuy wax moo tax sëñ bi bi muy wax ak soxna Penda Diop wala tarumi taatallaahi bi la taati zawjiki yi la ko wax zil ola sa borom kër bu ragal yàlla boobu nga nekkal del sàkk wala ngërëmam kon yooyu boroom kër yi war nañ cee bàyyi xel xam ne kilifteef gi ñu yilifee jigéen ñi mooy ci dëgg mooy ci dëgg euh, loolu mu ngi noonu ñoo ko dégg na beneen bi ci topp muy teggin yoo xam ne nag war nañ koo sàmmoonteel ci diggante mi ngi dox ci diggante ñëpp ñi nga xam ne dañoo yilif ak képp koo xam ne dañ ko yilif loolu bawut kenn mën nañ ko xaaj ñeenti xaaj bu njëkk bi yi war ñi nga xam ne dañu leen yilif li war ñi nga xam ne ay kilifay aada lañ li war ñi nga xam ne ay kilifay diine lañ bi ci jiitu ak li nga li war ñi nga xam ne ay kilifay njaboot lañ rek bi ci jiitu muy mbooloo mi mbooloo mi man mii ci ñi ma bokk daal ñi yilif ñooñu sëriñ bi jàngale na ci ay teggin yu bari ñu war a sàmmanteel bi ci jiitu sëñ bi génn woon na benn bataaxal bi mu fi nekk bind ci ne maa ngi leen di nuyu bu baax di xam le ne képp ku ne ci man la aju digal naa ko ñetti yi may bëgg a wax mu sax ci topp yàlla ak topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak am ay teggee nag ñi nga xam ne ñoo yilif réew mi mu set de canton yeeg ñi fi nekkoon jamono jooju ne la ñett yooyu digal naa leen ko ne leen ni ngeen di amee ni ngeen di toppee yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag li ma ci jublu mooy lépp loo xam ne da leen di yàqal tey ak ëllëg ngeen wattandiku ko ni ngeen di amee seen i teggin ak ñi nga xam ne ñoo yilif réew mi it li ma ci jublu mooy lépp loo xam ne lu mën a indi ab yëngu la wala ay yàq ci réew mi na ngeen def seen kem kàttan ba bu leen ci kenn dégg daan di daal di bind ca suuf ne képp ku gis mbind mii wala mu gis fu ñu ko toxalee wala rek mu dégg ñu wax ko te jëfewul lii ma ci wax lu ko dal ëllëg na xam ne moo ko teg boppam loolu sëriñ bi daana ko digle muy lu ñu soxla lool ci jamono ji ba bu ñu soxlaatee lépp loo xam ne rek lu yëngal réew mi la wala lu mën koo yàq taalibe yi ñoom sëriñ bi joxoñoon na leen ci lépp lu ñuy sàkku nañ ko wut ci ay teggin waaye lépp lu mën a indi ab yàq nañ def seen kem kàttan ba sori ko beneen bi ci topp muy teggin yoo xam ne sëriñ bi wax na ne war nañ koy sàmmoonteel ak nit si àdduna yi nit si àdduna yi ne maa ngi leen di dénk ngeen am ay teggin seen digganteeg li ci àdduna yi ne teggin yi ngeen di amee seen digganteeg ñoom nag mooy ngeen def seen diggante ñoom li ñuy wax mudaaraat mudaaraat mudaaraat mooy maslaa ak ñoom ci loo xam ne rek naqariwul yàlla daan li ma jublu ci mudaaraat nag mooy an turdiyal xalqa bi ma la takunu fihi maasiyatul xaaliq mooy ngeen fexe ba jaam ñi ngeen bégal leen dugal ci seen xol yi mbégte moo xam ne du ngeen ko defee ci naqar yàlla nag daan ne loolu mooy mudaaraat waaye wut lu nit ne wut lu neex nit ci lu naqar yàlla moom wala iyaasu billaah li muy indi mooy ngëm gu rekkiku ak torox ëllëg al boo yomal xiyaame daan ne te sax yonente bi sallallahu waxoon na ne la taa'ata li maxluuqin fi ma'siyatil xaaliq amul benn mbindeef moo xam ne war nañ koo topp ci loo xam ne neexul suñu borom loolu sëriñ bi daana ko digle ci ne bu ñuy bu ñuy jaxasoo nit i àdduna yi dafa war a am ay limites ay limites mooy bu ñu dugal mukk ci lu diine ba gudd bu ñu dugal ci dara loo xam ne day woyofal diine loolu taalibe bu ne buy jaxasoog nit yi àdduna yi war na cee bàyyi xel ba duñ ko dugal mukk ci loo xam ne lu woyofal diine la bu dee suñu digganteek nit ñëpp am na lettre bu mu bindoon borom moo Muxti ne ko waxal gaañi ne leen bi annahum ma'muruuna bi jalbil masaalih wa bi jabri xawaatiri naas bi bi muwaafaqatihim fi kulli ma fihi ridallah fii kulli ma fihi ridallaahi taala ne ko kat nee leen digal nañ leen ñoom ñëpp taalibe yi nañ góorlu ci fexe ba ñu yéwénoo ak nit ñi lépp luy indi jàmm nañ fexe ba bu leen ci kenn man nañ fexe ba di jubóog nit ñi li feek mi ngi doon loo xam ne rek ci loo xam ne naqariwul suñu borom lépp lu mën a indi jàmm ci réew mi rek nee leen nañ ci def seen kem kàttan loolu laa leen digal kon loolu bokk na ci teggi yi nga xam ne sëriñ bi digle na ko mbooloo mépp war koo sàmmoonteel muy loo xam ne bawul dara suñu digganteek suñu diine niñ ci war a sàmmonteel suñu digganteeg nit ci àdduna yi suñu digganteeg ñi nga xam ne ñoo yilif réew mi te nee na teggin yi war a dox suñu digganteek ñoom mooy ñu fexe ba rek lépp luy indi jàmm ci réew mi ñun bu ñu ci kenn man beneen bi ci topp muy teggin nii war a dox diggante kilifay aada yi kilifay aada yi ak ñi nga xam ne dañ leen a yilif mooy képp ku yor paluk àdduna moo xam président nga moo xam ab ministre nga moo xam gouverneur nga moo xam leneen loo waaye paluk àdduna lañ la jox mën nañ ci jël ñaari misaal yoo xam ne bu ci nekk sëñ bi ci ak njabootam la ko yónnee woon ñoo xam ne ay taalibeem lañ ku ci nekk dangaa yoroon pal goo xam ne dangaa yilifoon mbooloo muy Samba Laobé njaay ak Ahmadou Makhoureja nekkoon rakk ci Lat ñu ñoom ñëpp ay taalibe sëriñ bi la ñu woon danaa jàng ñaari bataaxal rek ci lu gaaw bu njëkk bi bu sàmbalaw bi euh, daf ko wax ne ko bataaxal bii mi ngi jëm ci sàmbalaw bi njaay ne lii maa ngi ko jëmee ci buur ba jolof sàmbalaw bi mi ngi jóge ci jaam bii nga xam ne nag doyloo na sëkk li ko yàlla defal maa ngi lay nuyu bu baax te di la jox sa wàccuwaay di la xamal ne it ndaw li nga yebaloon agsi na jotali na ma say nuyoo wax na ma yit ne dangay sàkku ma bindal la laabiire goo xam ne di ci mën a waaroo ne ko looloo tax ma bindal la lii ma lay bëgg wax ne ko na nga xam ne kat àdduna du la jox lu dul loo xam ne da ko nangoo ci say moroom du jox say moroom it lu dul loo xam ne da ko nangoo ci yow maanaam bu tayee mu ànd ak yow bu subaa mu won la ginnaaw bu tayee mu reeloo la bu subaa mu jooyloo la ne ko ginnaaw noonu la demee nag nanga fexe ba buy ree bul ci waru ndax àdduna saa bu la wanee xar kanam bu bu bu rafet rek balaa yàgg mu soppi ji ko kon bu mu la war mukk ne ko maa ngi lay dénkit na nga def sa kem kàttan ci di dimbali ñi nga xam ne ay way néew doole ay ñi nga xam ne ay néew doole lañ ak way ñàkk yi na nga sax ci di leen dimbale ndax yow la réew mi fal ndax foofu nga nekk yaa leen jiite na nga wan ginnaaw lépp loo xam ne ak tooñ la ak jaay doole ndax képp kuy tooñ du mucc te képp ku jaay faw dina am bis wa man jaara baar ne koy na nga xam ne xéewal yi nga yor tey ak nguur gi li muy rëy rëy ci ñaari anam rek nga ci jote lii dafa génnee ci ay loxo yu nit ñoo xam ne dañ leen a folli nga jot ci lii ña ko seeni borom dañoo faatu nga jot ci ne ko ci ñaari anam yooyu rek nga koy ñàkkee it faaw bis ñëw nga folle ko nguur gi génn say loxo baa nga génn àdduna ba fi nguur gi ne ko ginnaaw noonu la demee nag na nga góorgóorlu sa kem kàttan ba balaa ngaa génn àdduna baa nguur gi di génn sa loxo nga liggéey ci nga liggéeyal ci yàlla lu la mën a jariñ bu ëllëgee yowmal xiyaam ne ko li ma la doon dénk nag fii la soo ko jëfee fa lillaahi boo ko jëfewut nag lu la ci teg lu la ci fekk yaa ko teg sa bopp loolu ki sëriñ bi di waxal lii man nga ne président de la république la jolof gépp moo ko jiite waaye ni mu tàmbalee lettre bi rek war na ko ne ko dëgg doo nga la koy wax ndax nee na ko ki ki bind lii mi ngi jóge ci ki nga xam ne doyloo na sëkk li ko yàlla defal mooy soxlaalul dara beneen bataaxal bi ci topp sëriñ bi yónnee ko Ahmadu ma xuraja kooku rakk la woon ci Lat Joor taalibu sëriñ bi la woon moom it mu ne ko maa ngi lay nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay bataaxal bii nag li ko waral mooy di la xamal ne sa waajur wu jigéen wi nga ma doon tàgge yëgal nañ ma ko maa ngi ñaan suñu borom mu boole ñu yërëm tey jii nag ginnaaw jóge na fi lii rek moo fi des mooy nga di ko ñaanal ak di ko sàkkal sarax ak nag di waajal dee googu nga xam ne moo leen teqale na nga xam ne ni nga mën a waajalee dee it mooy nga tuub tuub gu sell ni ngay tuubee tuub gu sell nag mooy nga génn ci lépp loo xam ne diine da koo bañ donte aada da koo bëgg jëm ci mbooleem loo xam ne diine da koo bëgg donte aada da koo bañ ne ko na nga jiital diine ci lépp noonu mooy tuub gi ma lay digal fi mu ne ne ko na nga xam ne it li fi jëlee sa waajur wu jigéen woowu ba gisatoo ko faaw bis dina ñëw mu jëlee la fi ba sa njaboot googu la wër dootuñ la gis ne ko faaw malaakal mawti dana ñëw seet si la bis jël si sa ruu googu nga yor ni nga xamee ne dana seet si mboolem bi def yëpp ne ko te saa buy ñëw kat armée bu bu rëy wala fas yu bari mënut dox diggante mu def li mu war a def ne ko fàttalikul sa mbokk mii di silmaxa jóg muy Lat Joor fàttalikul jarbaatam bii di sàmbalaw ba Fall fàttalikul ñoom ñooñu noonu nguur yu rëy yi ñu yoroon keroog bi ma malaakal mawtu ñëwee ngir def liggéeyam kenn mun kenn teewu ko def li mu bëgg ne ko fàttaliku sax sa baay ak sa maam yi fi jiitoon nekkal nekkoon ay dammel ñoom ñëpp biir dogal bi ñëwee kenn munu koo téye ne ko ginnaaw noonu la demee nag li ma lay digal mooy na nga yeesalaat sa tuub yow ni nga koy yeesalee nag mooy képp koo xam ne amee la nga ko àq bi raddil mazalimi képp koo amee àq nga delloo ko àq ku ne àq ji nga ko ameel gaawal nga delloo ko ci nu mu gën a gaawe te nga tuubal yàlla it sa borom ne ko te nga xam ne it li dox sa diggante jaam yi dara mënu koo lijjanti lu dul nga delloo leen àq yooyu tooñ yi nga tooñoon nit ñi dara mënu koo dindi lu dul ñu nga baalu leen àq delloo leen seen àq yooyu nga leen amee yi dox sa diggante ak sa boroom nag moom saa boo ko tuubee mu jéggal la ko kon na nga gaaw ci fexe ba jéggalu sa borom te delloo nit ñi àq yi nga leen amee ne ko nanga xam ne it ëllëg ci sa borom dara mënu la faa jariñ lu dul jëf joo xam ne danga nga koo jëf te yàlla rek tax ne ko li ma la doon dénk mu ngi noonu lii nag mooy dëgg gi nga xam ne laa xubaara alayhi mooy dëgg gi nga xam ne benn sikki sàkk ci soo ko xamee nii ma la ko waxee nag fa alhamdulilahi rabbil alamin soo ko xamee nii ma la ko waxee nag fa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñaari bataaxal yi bu ci nekk sëñ bi kilifa ak diin kilifa ak maanaam président de la république la ko yónnee ku ci nekk da ngaa lu dul jeex ñu mën cee jàngatee lu bari ñaari bataaxal yi mën nañ cee jàngatee ne kilifa ak aada gu ne war nay diisoo ak kilifa ak diine ak boroom xam-xam yi ndax danañ leen di delloosi ci yoon wi dinañ ci jàngate it ne diine lañ war a jiital ci aada ndax sëriñ bi wax na ko ne ko nga génn ci lépp loo xam ne diine da koo bëggut donte aada da koo bëgg jëm ci mbooleem loo xam ne diine da koo bëgg donte aada da koo bañ kon diine lañ war a jiital ci lépp feññe ci it ne ku jiite mbooloo war naa wattandiku cooñ tooñ ak ak ak jaay doole tooñ ak jaay doole maanaam maandu ku jiite mbooloo mi ku ne war na ko sàmmanteel kem kàttanam waaye feeñ na ci ne way néew doole yi ak way ñàkk yi ki jiite réew mi ak ki jiite mbooloo mi war na di leen dimbale war na ñit di waaroo ci ñi nga xam ne ñoo leen jiite woon te xam ne nguur gu dul nguur suñ borom rek nguur guy jeex la beneen bi ci topp mooy teggin yi war a dox diggante kilifay diine yi ak kilifay aada yi loolu mën nañ cee jëlee lu mel ne lii sëriñ bi def mooy di leen laabiire ak di leen waar ngir ñuy dellu si ci yoon wi saa bu ñu naree wàcc yoon wi ñu dellu si leen di ko def nag bil ma ndax sëñ bi kenn ku nekk ci ñii waar na la waar woo xam ne boo déggee li mu la wax faaw di nga ko jafe ji te waxu ci kenn wax joo xam ne mën na su ko dégg néew ci kenn ab tooñkat nga néew ci kenn ab jaaykat doole nga jaaykat doole nga waaye ku ci nekk rek wax na la ne la nanga nga ban nangam te def nangam kon it bu ñu leen di laa bu ñuy laabiire kilifay aada it ñu di ko jaare ci yoon wi lislaam jàngale ak di leen fàttali li leen fi indi te ba leen fi te mooy ñu dimbale nit ñi kilifay aada yi mbooloo mi ñoo leen fi ba loolu it dañ ko war a xam waaye soññu leen tamit ci ñuy góor góorgóorlu ci lépp loo xam ne rek mën naa indi jàmm ci réew mi ci gàttal kilifak aada kilifa diine nu mu war a doxe kilifa aada mooy nii sëñ Muntaxa di doxe kilifa aada yi kepp jërul guddal ni muy doxeek ñoom rek saa bu ñu naree jàdd mu jubbante saa bu réew mi naree yëngu mu génn taxaw wax ngir moo njaboote mbado moo njaboote ñëpp te bu waxee ñoo xam ne farut fenn bu waxee ñoo xam ne ñëpp la fi nekk mbooloo mi duñ ko xërtal ba dugal ko ci mu def lu mu war a def saa bu jëfee ñoo xam ne kilifa moo jëf bu waxee ñoo xam ne kilifa moo moo wax loolu it kilifa yi diine yi war nañ koy sàmmante seen diggante ak njaboot yi ak kilifay aada yi beneen bi ci topp muy teggin yi nga xam ne war nañ koo sàmmanteel ci képp koo xam ne rek dafa dafa yilif moo xam kilifa ak diine gi yilif mbooloo la wala sax kilifa gu yilif ak njabootam bi ci jiitu mooy sëriñ bi waxoon na ne wa allimu abnaakum wa azwaajakum wa kulla man taallaq bi azyalikum ma awjabahu llaah alayhim wa illa ne yéen ñii lii sëriñ bi seex si la ko yónnee woon seex si la yónnee woon bataaxal bi ne leen nangeen jàngal seeni doom seeni soxna jërëjëf seeni doom seeni soxna mbooleem ñi nga xam ne yéen a leen yilif na ngeen fexe ba jàngal leen li nga xam ne moo moo moom lañu war a xam ci seen diine ne leen su ngeen ko defut wa illaa sawfa tusaluuna yowmal xiyaam su ngeen ko defut bu ëllëgee yowmal xiyaam suñ borom dina leen ko laaj yéen ñooñu leen yilifoon na ngeen fexe ba jàngal leen seeni farata bañ xam ko fi ne borom kër bu ne daa war a taxaw ba soxnaam xam ay farataam moom rawatina yu jëm ci ay laab julli sangu farata yooyu ku ne daa war a def kem kàttanam ba ak njabootam ñu xam ko ak ci anam guñ ko mën a xamee sëñ bi loolu mu doon digal seex si it moom naka jekk ci la nekkoon am na bataaxal bu mu bind di wax ne lii maa ngi ko jëmee ci mbooleem taalibe yu góor yi ak jigéen ñi di leen xamal ne digal naa képp ku ne ci man la aju te yàlla rek tax nañ dem xam lu ji seeni farata lépp lu jëm ci pas-pas attey laab julli koor ak mbooleem loo xam ne dafa war mu kallaf maa ngi leen di digal nañ dem xam lu ji ko ñoom murit yépp tekki ne wa inni takafaltu lakum wala kunna bi tawaalif yakunu fiha jamion zalik ne it maa ngi leen xamal ne nag loolu ma leen digal warlul naa leen ne dinaa leen taalifal téere yoo xam ne loolu lépp dina ci nekk mooy yi mu taalif tasawul sixaat tasawul shubaan jawharu al jawharu nafis munawir sudur téere yooyu te bi mu ko waxee wax dëgg def na ko téere yooyu mu leen waxoon dana ko bind sëñ bi def na ko na mu ko waxee woon te suñ borom bi def na ci barke ndax téere sëñ bi ku ci jàng xam loolu moom ñi ci jàngee ñëpp xam nañ ko téere sëñ bi ku ci jàng xam loolu mu daan wax borom daaru bu ko jàngale ba yàgg mu ne ko bàyyil li ci des mbokk dimbalee ko mbokkam nga xam du jar ñu ci jaar borom daaru li ma sëñ bi wax bàyyil mbokk dimbalee ko mbokkam moom laay gën a dégg sax ci li ma firil waaye lii sëriñ bi bi mu ko waxee def na ko xam ngeen bu yàggul rek am na mbokk yu génne téere bu ñu tuddee diwaanul ulum ad-diniya boo xam ne dajale nañ ci lu ëpp ñaar fukki téere ak juróom yoo xam ne téere xam-xam la yoo xam ne yëpp sëriñ bi ko bind mu dugg ci lii mu digge woon ne dina ko def xam ngeen sëñ bi naka jekk dafa fonk am jàngale mësta bàyyi jàngale si wuuteeg li ñuy wax sëñ bi bi mu jotee ndigalul Mbàkke Kajoor it dafa soppi nu mu doon jàngalee dafa dugal lu bees ci njàngale muy yer waaye mës bàyyi jàngale xam ngeen ba fii ci tu ba ba ba Mbàkke Bawal jàngale na fa Masaalikul Jinaan jàngal na ko sëñ Mbàkke Buso jàngal na fa Magaaliqun Niiraan jàngal na ko sëñ Ahmadou Kabir Mbay fii ci Touba daan na fi jàngale fi la dalale sax ñoom sëñ mënu fa sëñ Fall ba gànnaar sëñ bi daan na jàngale soxna Aminta Lo wax nañu bi mu fiy jógee benn dars la dese woon ci ci ci ci ci risaala te fii ci Touba la génne àdduna ba ni mu demee ba njaareem mujj soppi anam bi mu doon jàngale def tombam yooyu waaye sëñ bi mës ta bàyyi jàngale kon loolu euh, yu mat bàyyi xel la bokk na ci it yi nga xam ne képp ku yilif war na koo bàyyi xel diggante mag ñi mu yilif suñ motulaa mi ngi may junj ne waxtu wi mi ngi jege si euh, mooy képp ku yilif mbooloo war naa fexe ba di leen digal di leen digal lu baax al amru bil maaruf wa nahyi anil munkar di leen digal lu baax di leen tere ab safaan di leen soññ ci jaamu yàlla loolu sëriñ bi mësu cee jóg loolu it képp koo xam ne dafa jiite mbooloo ci turu diine loolu war na ko diggante mag ñi muy def saa su ne mu di leen di mu di mu leen di mu leen di soññ ci loolu yooyu xam ngeen li ci sëriñ bi def bari na lool saa su ne daan na soññee ci ñuy góor góorlu ci ñaar yi muy liggéey ak jaamu yàlla liggéey ak jaamu yàlla am na ko ñëwoon ci moom di ko bëgg a soxla ne ko mbàkke de dama am yitte joo xam ne bu yàlla jàllee yonent bi sallallahu alayhi jàll bëgg ko wax ne ko yow laa ci yaakaar sëñ bi na ko taxawal mu taxaw mu ne kon ahmadu wéy kon ahmadu wéy ñooñu buñ jàllee ma jàll ne ko nag yitte ñaar laa ci xam yitte àdduna ak yitte alaaxira yitte àdduna ju liggéey mënta faj xawma jooju yitte yitte alaaxira ju jaamu yàlla mënta faj xawma jooju yitte ne ko bismillah jën yitte nga am loo xam ne ko ñaanal na amatul leneen lu mu ko wax kon sëriñ bi loolu la daan soññ taalibe ci ñu xam ne jullit bi ñaar yooyu ñoo ko seq muy àdduna ak àllaaxira te noonu la ci war a doxe daan na leen wax saa su ne wax ju leer ci soññ leen ci ñu xam ne suñ borom dëgg la bëgg ak jaamu yàlla gis ngeen sëñ Malick Ndiaye lantinoor muy kooku nekkoon njaareem daan yëgle sëñ bi am na bi sëñ bi ne ko demal ba ca jaba mooy marché ba ne boo demee nee leen wax nga wax fere yi ne leen fere yi mooy taalibe yi ne leen def lu la neex wax lu la neex bu ëllëgee boo dee dem aljana ku xam fu mu am na fa dem man ahmadu awma jooju aljana ne ko ne leen soxorew ma leen ko waaye dama ko amut soxorew ma leen ko waaye dama ko amut def lu la neex wax lu la neex bu ëllëgee nga dem aljana ku xam fu mu am na dem man ahmadu awma jooju aljana am na bis sax mu dajale mag ñi junj leen loo xam ne jamono ju ne rek nga koy gis wax leen ne leen kat jamono ngi ñëw ci kanam am màmm mu am màmm riir mu mag mbooloo mu bari moo xam ne dañuy àndandoo di fëx wuti safaan ba muy sawara ne te moo ne day ñoom ñooña bu ñu leen bu ngeen leen gisee man la ñuy tuddoo na ci man lañu bokk te duñ def lu yàlla digle duñu bàyyi lu yàlla tere te fu ngeen leen gisee dañ naan ci man lañu bokk daane waaye buñ ci àggee na ngeen xam ne séquma ak ñoom dara daal di yëkkati loxoom ne wa ma kuntu muttaxisal mudillina aduda ne képp ku tegewut ci li suñ borom yoon wi suñ borom rëdd képp ku ci jaarut séquma ak yow dara loolu sëriñ bi daan na ko daan na ko junj daana waxit ne am na ñoo xam ne bu ëllëgee yowmal xiyaam duñ ma gis du ma leen gis ndax la ma nekkoon dañ caa nekkut bu ëllëgee duñ ma gis du ma leen gis ndax la ma nekkoon dañ caa nekkut am na ku ñëwoon ci moom koo xam ne ci mbokki sëriñ bi la ci ñi sant Mbàkke ñëw ne ko kat ñun dañoo jaaxle ndax ñun amuñu ku dul yow te dañoo dégg gaañi naan yow amoo mbokk ne bi mu ko waxee sëñ bi joxoñ ko ne ko bu ma ko waxati gisoo kenn ku amuti mbokk kooku ne teg commencé bëgg mu ne ko waaye nag képp kuñ naan sama mbokk la ku ne lam baax la kese lañ bokk mag moom képp ku ñu naan sama mbokk la ku ne lam baax la dong lañ bokk ma ak moom mooy sëriñ bi li ñuy bokkee ci moom mooy ci ay jikko ci ay jikko nit mën naa sori lool te jege lool safaan bi mën naa am nag nit mën naa nekk fii jege lool te sori lool sëriñ bi wala ayaasu billah waxoon na taalibe yi fii bis ne leen bu kenn ci yéen yaakaar ne dañ koy tungoom tabal ko aljana bu kenn ci yéen yaakaar ne dañ koy tungoom dugal ko biir aljana li leen di dugal aljana yéen a koy liggéeyal seen bopp waxoon na ko léegi ci laabir ci ndénkaan loolu mu doon wax ko ko ne ko li lay jëriñ ëllëg yowmal xiyaam li mu doon wax ahmadu ma xulaja ne ko loolu mën a jëriñ sa borom ëllëg mooy jëf yoo xam ne da ko koo jëf te yàlla rek tax mooy ëllëg sëñ bi daa rëdd yoon wi jiitu na nañ leen dem li ñuy bokkee ci moom mooy ci ay jëf yu baax waxoon na fii soxna Xawa Buso ne ko aljana benn buur la am muy yàlla te ku ko jaamuwul du la ca dugal ne ko aljana benn buur la am muy yàlla te ku ko jaamuwul du la ca dugal rajaau jannatin bila taati bi sunnatil maahi gururun yaati bëgg aljana te jaarewoo ci lii yonent bi sansam rëddoon képp ku koy defe ci ay nax la nekk te bu ëllëgee dina xam ne ci ay nax la nekk sëriñ bi daan na leen firil ñaari aay yi aaya bii di wa in yamsaska allahu bi durrin fala kaashifa lah mooy suñ borom bu la tegee bu la tegee am not bu la tegee lor kenn mënu koo dindi ku moom ne leen loolu yéen li ngeen koy déggee mooy li mi ngeen koy firee mooy ragal ragal ku la ci mbindee bu mu la yóbbee mukk ba ngay def ak mooy yàlla ndax saa boo defee mooy yàlla googu bu la suñu borom di mbugal kenn du mën a teggi mbugal bi yéen loolu li ngeen koy déggee mooy bu leen kenn dugal ci lu naqar yàlla ndax bu leen ci dugalee bu leen suñ borom di mbugal du leen ci mën a génn daan leen wax yéen ne leen wa in yuridka bi xayrin fala radda li fadlihi ne leen yéen loolu ni ngeen koy firee mooy da ngeen di fexe ba ruus mel ni mbindeef wala ragal ko bu mu tee ngeen def genn topp yàlla ndax xéewal gi leen suñu borom di fayee saa bu leen koy fayee kenn du ko mën a dindi seen loxo ci ñoom ñooñu muy aay yoo xam ne neneen lañ ko doon firee waaye sëñ bi ci geneen anam la leen koy firee daana leen junjit neleen leen góor góorgóorlu seen kem seen kem kàttan ci sax ci li lislaam muy waajib muy mandub muy mu waax ne leen waajib mooy loo xam ne waajib ni ñu ko xamee ñoom suñu laa ñii ni ñu koy jàngale waajib mooy loo xam ne dafa war jullit bi loo xam ne bu ko defee ñu fay ko bu ko defut leneen mën na ko ca fekk mandub mooy loo xam ne laal sopp nañ ko ci moom bu ko defut xëy na ab yar mën na ko ci bañ a fekk waaye bu ko defee ñu ñu fay ko aw yiw mu baax loo xam ne dafa dagan rek dafa dagan sëñ bi firil leen ko ci geneen am bu wuute ne leen na ngeen xam seen waajib na ngeen xam seen mandub na ngeen xam seen mu baax ne leen ndax xam ngeen luy seen waajib ñu ne ko déedéet mu ne leen seen waajib mooy ngeen wàññandiku tër bi te xam ne ab tër a ngi ci kanam boo xam dina ñëw te bu ñëwee lu waaye bëggoon a tëdd dina ko tëdd ba tëdd lu mu bëggutoon tëdd ne muy dee loolu mooy seen waajib ne leen ndax xam ngeen seen mandub ñu ne ko déedéet mu ne leen seen mandub mooy ngeen wàññandiku damu bi ngeen wàññandiku ndamu bañ na démb la woon bis ne leen te bu boobaa sax du jar damm nag ndax foofa lu fooy am ñëpp dinañ ci teg bët kon bàyyi leen damm bi rek ne leen ndax xam ngeen seen mu baax mooy liy dagan ci yéen ñu ne dee leen mu ne leen dara dara dara ba muy ñetti yoon ne leen dara ju njëkk ji mooy nga xam ne suñu borom tabaaraka wa taala mooy borom qudratu ak iraada te bu xàccee yaram ba kenn du ca te bu xàccee yar ba kenn du ca tee kon jaamu ju leen yàlla ne leen daree ñaareel ji daree ñaareel ji mooy ngeen góor góorlu xam ne kat àdduna ji ñu nekk te xalseet fee jóge mët a jëfal dara ndax lu ko waaye jëfal ñàkk na ko ne leen dara ju mujj ji nag mooy ngeen xam ne alaaxira jee ñu jëm te xalseet faa sax lu ko waaye jëfal jëtt naw ndax kat dara du fa doy muy ay baat yu gàtt yoo xam ne siñ bi ci ay wolof yu leer la koy wax yoo xam ne bu ñu ko doon taaraar di ko tasaare di ko di ko yaatal ay xadis ak ay aay yu baree bari lay jël tënk ko ci ay baati wolof daan leen junj ne leen yooyu na ngeen fexe ba seen kem kattan nga di ngeen di ci góorgóorlu daan na leen waxit ne leen nañ xam ne ñoom ay jullit lañ yoo xam ne dañoo war a nekk ay gor na ngeen góor góorlu ba nekk ay gor wax leen juróom-ñetti mbir yoo xam ne nee na leen ngir nit ki nekk gor faaw juróom-ñett yooyu day nekk ci moom juróom-ñetti mbir yoo xam ne ku ne da ko war a sàmmanteel boo bëggee nekk gor gor du jàpp di bàyyi gor du sopp gor du wéet di wor góor du digalum narut góor dina jëflante ku ko jikkoom soof góor dina góor dina teral kum xamut góor dina dimbale kum tane góor dina xam lu jar wax noppi ne leen juróom-ñett yi góor su da ko war a sàmmante bu bëggee nekk góor juróom-ñett yooyu nag bu ñu tegoon fii ab appareil ci télé bi moom ne ku fi jaar te manqué benn dina sone ci sone lay dëkk moom loolu moom wala boog dina bari lu muy sone xanaa sama classe gi bañ faa jaar waaye moom daal mi ngi noonu juróom-ñett yooyu kenn ku nekk ci ñun na ci xool boppam rek bu wéetee mu xool fu mu ci ne bu ci bu matee ma waxaat ko waaye juróom-ñett yi mooy sëñ bi daa wax ne gor sàmmoonte ko bëgg a nekk gor gor du jàpp di bàyyi gor du soppiku ko gor du wéet di wor gor du digelum narut gor dina jëflante ko jikkoom soof gor dina teral kum xamut gor dina dimbale kum tane gor dina xam lu jar a wax noppi léegi nag nañ ci xool suñ bopp ñun ñëpp rek ku am juróom-ñett yëpp mu sante ko yàlla li sëñ bi waxoon ku ci manqué benn nit mu def ko mu ngir juróom-ñett yooyu ndax sëriñ bi woon na soxna sa boo bëggee an boo boo dee ku ñuy tudd di ma tudd di nga nekk jullit di nga nekk gor daana leen waxit ne leen nañuy wattandiku di boole jëf ju baax ak jëf ju bon <coughs> daana leen wax loolu ne leen na ngeen fexe ba wattandiku di boole ji di jaxase jëf ju baax ak jëf ju loolu bari na léegi fi ne bu bu bu julli jotee jumaa ji fees dell waaye ñooñu nekk ci jumaa ji xaaj bépp ñooy demaat ci fi ñuy defee yi ñuy tere yenn nit ñi la sëñ bi daan na leen wax ne leen nañ wattandiku di jaxase jëf yu baax ak jëf yu baaxut ne leen bu ngeen gisee ma di leen tere jaxase jëf ju baax ak jëf ju baaxut di ko boole li tax baaxut mooy ne leen tey ñi ngi fii ci Jolof waaye li dale fii fi jolof ba fa gën a sori ci saalum lu baax a ngi ne fi gàññ waaye am ko te ticc kenn mënu ko am daanaka te lu baax a ngi ne fi gàññ ne leen li ko waral mooy nit ñi dañuy boole jëf ju baax ak jëf ju baaxut ne leen su ma leen ko doon misaal mooy jëf ju baax ak jëf ju baaxut mooy nit ku dem defar ngunoom ba mu baax kaaf bu baax daaj ko ba mu baax mu dem jël ay muusi siiru dugal leen ci biir kaaf gi tëj leen dem góorgóorlu ba am ak ginaaram ne da koy yar ñëw dugal ko ci biir muusi tëj ko fa dem ne ndaxam moos saa bu ubbee kaaf ga ay siiru la fa a fekk waaye du fa fekk ginaar ne leen boole jëf ju baax ak jëf ju baaxul noonu la mel jëf yu baaxul di day lekk jëf yu baax yi kon na ngeen ko wattandiku daana leen soññi ci ne leen fu ñu jëm nañ fexe ba nekkal ko fa te di fa wane njàngale mii am na ñu mu waxoon ci mag ñi bis yewe leen ba ñuy dem woo leen ne leen baa baa du ngeen yàq bokk leen ci ñuy yàq sama der ñu ne ko fasuñu ko yéene Mbàkke mu ne leen ndax xam ngeen sax lu yàq sama der ñu ne ko kuñ ci démb la ñu jël mu ne leen yàq sama der mooy jóge fii fi man ba pare dem feneen ñu di la gis ci dara lu naqar yàlla te lépp lu neex yàlla bu ñu la xoolee duñ la ca gis ne leen loolu mooy yàq sama der na ngeen fexe ba bu leen bokk ci ñuy dem di yàq sama der yéen loolu taalibe bu ne it war na ko sàmmoonteel ba fépp fu mu rek mu jàpp ne foofa mooy Tuubaa fépp fu mu nekk mu xam ne moo fa nekkal sëriñ bi bu nekkee ku ko xam ak bu nekkatu ku ko xam ndax ñi ñu xamut ci ñun la ñuy xamee njàngaleem sëriñ bi gis ngeen sëñ Sidi Hadj Malick radiyallahu anhu seere su am su su su rafet soosu mu seere woon ci sëriñ bi ci ay jikko la gis moo tax mu seere wax ne moom jël na lim xam ci sëñ Tuubaa radiyallahu anhu wa arda ne lim xam ci Cheikhul Khadim moom jël la na ko waaye su ko xamutoon sëñ Mbàkke Buso mi mu xam ak jikko yu rafet yi mu xam ci moom xam na ne ku topp rek kooku la muy woote dëgg la mooy kooku sëñ Mbàkke dafa yàqu derub sëñ bi dafa nekkee noo xam ne ku ko gis naw sëñ mu ne xam na sëñ bi bu baax waaye su ko xamutoon sax sëñ Mbàkke mii mu gis te xam ko xam na ne ku mu topp rek la ngay woote dëgg la loolu yi taalibe yépp dañoo war a fexe ba ba nekk foofu ci gàttal rek kilifa diine war nay sàmmonteel yi ma wax yépp muy fexe ba saa bu waree wax taalibe mu wax ak ñoom tranché mu leer amul làq-làqal amul noppi sëñ Bàkke Buso bi muy seelal sëriñ bi bi mu koy xam ne dane wallaahi maa ahidnaahu <coughs> wallaahi maa ahidnaahu xattu yuqiru ala al baatili aw yaskulu aw yaskutu ala al manaakiri laa xaaifan wala gaafilan ne maa ngi wàcc yàlla ne ñun ñi àndoon ak moom démb ak bërki démb mësuñu ko gis boobu ba tey ji mu mu gis mukk ñu def naka sudul noonu mu di ci noppi nee na du ko def ngir ragal ki ko def du ci noppi ngir ragal ki ko def du ci noppi ngir xeeb lañu def lu nit def ci naka sudul noonu ci kanamam loo ko jege-jege ak lu mu la fonk-fonk ci saa si da lay di jubbanti lu ñu def ci kanamam ci naka sudul noonu lu mu tuuti tuuti du ko xeeb ci saa si day daal di wax niñ ci war a taxawee gis ngeen ñooñu Sëñ Madu Lamin di nettali soxna soosu ñëwoon ci kër sëriñ bi ci njaareem nekk ci ci keesuk soxna yi di wax ak waa sax yi nee na di jëw ba xaabaabal ci jëw bi nee na bi mu commencé jëw rek waa barsaq yi moom noppi nañ ndax xam nañu sëñ bi bëgg ko te xam nañu sëñ baa ngi leen dégg nee na bi soxna bi gan gi ëppalee la sëñ bi jóg rek gëdd leen fi ñu nekkoon ñu tëb ñoom ñëpp daw dem sëñ bi na basan gi ñu toogoon nañ ko taal ko xam ne basan gi ñu toogoon di jëw sax da koo lakkul ak léegi moom ni mu mel daa mel ne nit ñi dañoo juboo ci ne ëllëg moom suñu boroom du du du àtte jëw moom loolu lay niru daal loolu lay niru ndax ndax ndax waaw fépp la ñuy jëwee léegi waaw diggante bi bi ñuy liqaam ak bi ñuy taxawal sax gaañ ñi dañu fiy jëw léegi kenn xamul lu mu doon ba ma xamul ci li ñuy lekk la nekk xam waaye jafe-jafe la xam naa ne jafe-jafe la daal waaye yooyu yëpp daal war nañ cee war nañ cee bàyyi xel euh, sëñ Mourtala mi ngi naan waxtu wi kon mën na ma tënk rek euh, buñ doon tënk waaw sëñ Mourtala laa neen waxtu yi mën na daanaka kii na nee na des na tuuti bu boobaa ñu ñu ñu bu ñu doon tëj rek mën nañoo tàmbalee tënk kon ndaxit xam na suñu laat maa ngi ko gis muy xool montre bi rek xam naa waxtu bu sëbee mën nañoo bu ñu doon soññ mën nañoo wax rek ci ne <clears throat> lii ñu wax lépp ak lu ñu waroon a wax te waxuñu ko des na ci jàngate yu bari bi ci jiitu mooy ñu xam ne ay teggin gii ñu doon waxtaane lu am am solo la ci dundub doomu adama bi am na solo ci ak dundam fii ci àdduna am na solo ci ak dundam fële ci àllaaxira bu ñu demee ci naxju xadaayil xaaj Cheikh Xadim da ciy wax ne wa yujibul madxala dal jiraani kama yubaaxidu ani niiraani ne ay teggin dana tax nit ki rafetoo ak ñim dëkkal ñim nekkal ñépp dana tax mu mu mane ak ñoom ne ay teggi nit dina tax ba bu ëllëgee nit ki sori sawara kon ay teggin am na njariñ ci àdduna am na njariñ ci àllaaxira sëriñ bi it wax na ci masaalikul jinaan ne képp ku bëgg a dem ci suñu borom te jaarewu ko ci ay teggin bu ngeen di wër nit ku ku ku amul xel na ngeen jàpp ko fa kullu man bi gayrihi raamal wusul li xadratillaahi fa xumrun la nabil képp ku ngeen gis mu bëgg a dem te jaarewu ko ci ay teggin bu ngeen di wër ku ku ku dof na ngeen jàpp kooku feeñ na ci biir waxtaan wi it ne ay teggin lu am solo la ci biir yoon wi ñu nekk mu yoonu murit ndax sëriñ bi da koo sos ci ñetti mbir da ko sos ci ñetti mbir muy al ilmu naafi muy xam bu am njëriñ al amalu saalih muy jëf ju baax al aadaabul mardiya muy ay teggin yu ñu gërëm ñett yooyu benn bi mooy ay teggin kon muy ñetteel bi foofu rek feeñee na ci lool teggin solo si nga xam ni am na ko ci biir ci biir murit gi ñu nekk moo tax sëriñ bi am na fu mu bindoon bi mu nekkee ci géej gi di fàttali mag ñi ba junj leen ñett yooyu ne leen ñett yii daal muy xam li ngeen war a xam ci seen diine fexe ba njaboot gi xam ko ak di ko jëfe boole ci ay teggin ñett yooyu mooy yi nga xam ne mooy yiñ leen yi ñu leen di nawee yéen li feek mi ngi ci yéen nit ñi di gis ci yéen lu ñu leen di ñee waaye saa bu ngeen ko bàyyee nag yem ak ñépp jamaalukum ilmun wa saayun wa adab falaazimuha yunfa ankumul wadab na ngeen sax ci ñett yi feeg yéen a ngi ciy sax nit ñi di am di gis ci yéen lu ñu leen di ñee waaye saa bu ngeen ko bàyyee nag yem ak ñépp xam ngeen yarub murit lu tasaaroo la léegi sax mujj na di jeexital ci biir sénégalais ba ci ni ñuy solo ni ñuy waxe du ñu wax jëkkër boroom kër lañuy ñuy wax wala ab sëriñ duñu wax jabar soxna la ñuy wax duñu wax doom tut tànk la ñuy wax duñu wax sax ay laxasaay la ñuy wax duñu wax ay yére ak yooyu bëri na waxinu murit yi ku la fël sax bala nga koo bala ngaa boo felee nii sax bala bala ngaa jéggalu mun la jéggal ma yooyu ci yarum murit la bokk boo xam ne dañ loolu ay akila la am dañ ko war a tee wala ñu bàyyi mu rëcc ñu ndax yooyu dafa bokk ci yi nga xam ne ci ci li ñuy xàmme la la bokk ci suñu ci la bokk mu yarum murit bi nga xam ne léegi sax tàmbali naa tasaaroo ci biir ci biir sénégalais yépp waaye feeñee ne ci biir waxtaan wi it ne teggin yi ñuy wax sëriñ bi daan na ci woote waaye moom moo ci jiitu woon sëriñ bi xam ngeen fonk na ko ba am na téere bu mu bind tuddee ko nax ju xadaa il xaaj muy téere boo xam ne ci ay teggin dong la jëm di téere boo xam ne moom ñépp ko war a jàng ku ne war naa fexe ba ak njabootam jàng ko ak ci anam gu ñu ko mën a jàng jàng it du téere bi di wax rek waaye donte dañ leen koy wax ci olof baa ci tukkuloor baa ci séeréer baa làkk bu mën a doon ñu fexe bañ xam rek li ci ne ndax sëñ bi li mu bëgg rek moo ñu jëfee ko lu ñu di ko taree téere la boo xam ne siñ bi njaboot gi ñenn ci njaboot gi ñoo ko sàkkoon ci moom mu bind ko wax na ko ci njëlbeen gi haza wa inna lyawma zu ijaba baadal muridina zawil ijaba istalabu nazman xawa taadduba liya taaddabu wa zaaka wajaba ne tey maa ngi bind téere bi di ci wuyu ñenn ci njaboot gi fere yi ñoo sàkk ci mën ne naa leen bindal téere xam-xam boo xam day jëm ci ay teggin te nag sàkku nañ lu mat a sàkku ndax teggin waxoo fi daaray ni xayru kanzi wa xayru maataza bihi zu izzi mooy li nga xam ne mooy lu gën ci lu nit mën a damoo ci kaw suuf lu nit mën a jaay moroomam ay teggin mooy la ca gën téere boobu bi ko sëñ bi bind bayit wi mu ci njëkk tàmbulee rek bu ci yemoon mënoon naa bind bayit ne subhaana rabbika rabbil izzati mu jeex danañ ci jàng ay teggin bayit wi sëñ bi njëkk wax mooy xaalab nu cheikhihi allazi laa yahmadu fi nafsihi si wasmihi muhammadu ne ki bind lii mooy doomi sëriñam bi nga xam ne bi mu xoolee boppam ba mu daj gisu ci dara lu jar sant lu dut tudd gi mu tudd muhammad gis ngeen xam-xam bu rëy bi mu am bañ di ko bindloo ay téere mbooloo mi ko topp loolu lépp doole yi lépp gisu ko nee na bi mu xoolee boppam lenn la ci gis loo xam ne gis na ne lii moom rëy na te fees na bëtam mooy tudd gi mu tudd muhammad sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallam kon loolu it war nañ ko jàngate bu baax ci ne teggin yooyu ñu doon sàkku ci sëriñ bi dañ koo gis ci moom moo tax ñu doon ko sàkku ci moom te xam ngeen sëñ bi dafa fonk fonkoon ay teggin ba dara nagg sax ci di ko ñaan suñu borom wa hab lana al aadaba wal mazaya wa kuffana al aafati war razaya ci masa ca matlabu shifaay na nga ñu defal ay teggin defal ñu ay may te musal ñu ci lépp loo xam ne rek euh, naka su noonu la rek ci biir biti moo tax sëñ bi daa junj ne moom li ñuy jariñoo ci moom li ñuy jariñoo ci moom mooy ab yar daana junju ne li ñuy jariñoo ci moom mooy ab yar waxoon na mag ñi ne leen kër gi yar bi ku ko fi jëlee bawu fi dara ku ko fi bàyyi jëlewu fi dara ne leen kër gi yar bi ku ko fi jëlee bawu fi dara ku ko fi ba jëlewu fi dara mooy li ñuy jariñoo ci moom mooy ay jikko ak yar ak teggin ak njullite moo tax sëñ bu so bokk ci kenn ci ñi nga xam ne sëriñ bi dalee leen yar bi muy tàgg sëñ bi tàgg na ko ci anam googu wax ne kat sëñ bi moo ñu yar moo ñu jubbanti moo ñu jubal moo defar suñ biir ak suñ biti moo defar suñ biir ba bañ bokk ci jullit ñi dëgg ñi suñ borom bëggoon waaye moo defar suñ biti ba nga xam ne ku ñu gis naw ñu wal xawsu wal miryaasu rabba xulubana waa wa ajsaamana fal kullu saafin wa naim defar na suñ biir bañ nekk ay dëgg-dëgg jullit bokk ci nitu yàlla yi defar na suñ biti it ba ku ñu gis naw ñu murid yi ku leen gis naw leen murid dëgg ku ko gis naw ko loolu nag mbir la moo xam ne dañ ko war a jëmbat ci biir njaboot gi waruñoo bàyyi mu naax saay fi mu jamono naqari na li ñuy woowee choc des civilisations internet bi am na mondialisation daanaka nit ki tëju mën a tuta ne maanaam fi ne kenn mënta a tëju rek ne damay tëj sama njaboot boo ko tëjee li nga doon daw jàppal ne tëjuwaale nga ko ci sa biir ndax internet beeg yooyu waaye dañuy fexe ba ni ñu koy lijjantee mooy dañuy fexe ba yee leen ñu xam ne yooyu yëpp ay xéewal yu fi borom indi wa ma bikum min ni'matin fa min allah xéewal yi leen seen borom defal it wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha bu ngeen doon wàññi li leen seen borom defal ci xéewal ngeen du ngeen àggal ñu xam ne internet yeeg yooyu yëpp ay xéewal yu ñu suñu borom xéewale waaye nag dañoo war a yee njaboot gi ba ñu xam ñoom nuñ koy jëflanteen ndax sëñ bi waxoon na ko taalibe ne leen bu jamono soppi ko ci lu naqariwul yàlla da ngeen di soppi ko ànd ak moom ndax su ngeen ko defut day jaar seen kaw jàll internet bi kenn mënut a wax ne bu ci njaboot gi dugg waaye dañuy fexe ba yee leen nag ba seenu murit dara loo xam ne lu koy lu koy ñagasal la du leen dale ci internet bi bu ñu duggee ñu xam xam ne internet mën naa doon lu am njëriñ ma mën naa nekk xéewal ci nit ki ndax dinañ ci jokk mbokk dinañ ci joti xibaar dinañ ci sàkku xam-xam dinañ ci jànge dinañ ci liggéeye waaye nag mën naa paaka ñaari bor la dana yàqu der dana yàqub diggante dana def dana yàq temps dana def naka sudul noonu maanaam mën naa mujj nekk majaalisu saqaawa gi ñu siñ bi doon teree ca mat la matlabul ca tasawuru sigaar bu ñu wattandikuwut internet mën naa mujj nekk loolu ci nit ki kon loolu it waajur yi war nañoo jiima yee njaboot gi xam ne jamono ji ñu ne internet bi lu mat a bàyyi xel la ndax dafa dugg ci suñu dund gi fi ne kenn mënatu kenn mënatu koo mënatu koo bàyyi ginnaaw te àdduna moom nii Serigne Saalix xam ne waxoon la mel daf ne woon àdduna dafa mel ni ab tëli tëli buy dem nii ne nit ki fi mu ko jëlee ni tëli bi mel rek ci lay mën a dawee bu dee fi nga ko jëlee ay paxa ne noonu nga fay mën a jaar bu dee tëli bu tàlli nga fa fekkee ci tëli bu tàlli ngay daw ñun nag jamono jii ñu dajal jamono ji la jamono internet la jamono jaxasoog ñëpp la nit nag bu dee mënut a jaxasoog ñeneen dañuy fexe bam xam boppam ngir fu mu jaxasoog keneen nit moom démbam ak li nga xam ne moom lañ ko nawee moom lañ ko xamee mu mën koo sàmm ba du ci jóg mu ko loolu sëriñ bi daana ko digle ci ñu fexe ba fu ñuy dem rek ñu nekkal ko fa bañ a bokk ci ñi nga xam ne dañuy yàq dañuy yàq ab daram feeñe na ci biir wax ji ne ndénkaan yii sëriñ bi dénkaane njàngale mi mu jàngale mbir mu universel la maanaam mbir mu universel la mooy jamono yépp mën nañ koo jariñoo barab yépp mën nañ ko faa jariñoo ndax yi ñu fi wax yépp sëñ baa ngi ko wax diggante Mbàkke Kajoor ak Njaaréem diggante boobu la ko wax daanaka jàppal ne ci ñeent fukki gën gaa bari ñeent fukki at ak nangam muy li fekk sëñ Mor Anta Sali ci la ko wax ñeent fukki at ak nangam jàpp juróom fukk waaye loolu lépp teewut ba jamono ji ñuy ne mu ngi valable te buñ ko waxee day mel ne tey jii moo taxoon sëñ bi di ko wax sëñ bi mi ngi ko waxoon ci diggante barab yooyu te ba fi mu ne nii buñ ko yóbboon bitim réew muy France muy Amérique ñu mu doon buñ leen ko waxee buñ ko jëfee mu leen loolu des na ci déggee ne kon njàngaleem sëriñ bi war nañoo fexe ba tasaare ko ba ñëpp jot ci ndax lu lu lu la lu yàlla loo xam ne warta doon rek lu ñuy tëjoo ci suñu biir waaye dañ ko war a tasaare ba ñëpp jot ci murit gi nag dañ ko xaw wolofal ñun ba ëpp dañ ko wolofal ba fi ne nekk murit te nekk wolof sax yombut loolu nag jafe-jafe la jafe-jafe la ci tax murit gi tasaare ko xaw a jafe xëy na loolu beneen tomb la waaye nag njàngaleem sëriñ bi bu doonee lu mën a tasaaroo ngir àdduna séppit sëñ bi waxoon na ko bu njëkk ndax waxoon na ne moom mbindam mépp mi ngi koy jëlee ci lawxul mahfuz kitaabati min lawxi rabbi tunqalu laa yamtari fiha nabilun yaqilu ne sama mbind maa ngi koy jëlee ci lawxul mahfuz te loolu nag ku am xel du ci am lu muy sikk sàkk ci li ma wax kon euh, waxtu bi yaakaar naa ne mu ngi jege bi ma bëggee tënk sax yàgg na waaye dañ ma waxoon naa dem ba ci kanam tuuti rek kon daal li ñuy tënkee rek mooy di wax ne tomb boo am solo lañ doon waxtaanee boo xam ne ni ma ko junjee woon ci njëlbeen gi mëne su ko waxtaanee ci benn jotaay mëne su ko waxtaanee ci ñaari jotaay mëne su ko waxtaanee sax ci weeru lëm ndax sëriñ bi ci ak dund la ko def ci ay at yu bari ci at yu barkeel sax nag ci la ko def kon koy waxtaanee ay junj rek lay mën a doon euh, maa ngi sant bu baax euh, mbokk yi nga xam ne mooy daayiratu Muqaddamatul Xidma di ko tàmbale ci suñu kilifa sëriñ Afia mi ko jiite ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne am nañ ko ci barab bi ak waxtaan yi nga xam ne woo nañ ñu ci te lépp rek ngir bëgg ñoo dimbale waaye du dara ji ñu am ngir wala dara waaye xëy na bëggoon ñoo dimbale ak bëgg ñoo soññ rek ñu ngi leen ci sant bu baax di ci am mbégte di jégalu bu baax a ndax xëy na waxtaan wi waroon naa leer waroon naa gën a yaatu ci waaye bu fekkee da yaroo ci ay buso buso bu bu jeexeetale ci yow koor gi bu agsee fii faaw booy waxit nii rek lay mën a mel te man ay buso buso laa dëkkal samay nijaay yoo xam ne xam naa ne loolu jeexital la ci man waaye daal ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di sant suñu borom mi ñu baaxee ba ñu mën a bokk ci wàkka sëriñ bi muy tawfeex bi mu tawfeexale joo xam ne du fàggu teef du liggéeyam nday du dara waaye tawfeex gu ñu suñu borom baaxee la rek ndax sëriñ bi ne na ñu mu àndal ñëpp moom moo leen tànnal boppam kon loolu sens rek la ci nit di mën a duggee koo xam ne ku ànd ak moom texe àdduna ak àllaaxira loolu lu la ca boole sens dong lay mën a doon waaye du luñ fàgg du luñ lay fàggalu dara maa ngi tuubalal yàlla di jégalu sëriñ bi ndax fi ñu nekk jege na barab bi lool waroon nañu fee nekkee leneen lu dul di yëkkate ay kàddu di jégalu mbooloo mépp gis naa fi samay sëriñ daara gis naa fi samay magi daara gis naa fi samay wëllëre yu bare bari yoo xam ne ñoom ñëpp bu ñu fi teewee rek euh, man awma fi kàddu waaye xam naa rek noonu la ko la ko gaañu bëggee woon moo tax wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah euh, jërëjëf sëriñ Mamor ci waxtaan wu am solo yi waxtaan wi jotale na lool macha allah liñ ci doon séentu yëpp it euh, kawe na suñ jot lool tey jotale na ñu ngi lay sant bu baax a baax di la ñaan yàlla di la ñaanal yàlla mu gën laa dëgëral bu baax a baax a baax day mel ne lim tënk rek ci jeexal bi mooy li nga xam ne moom lañ mën a jàngate ci waxtaan wi mooy ne sëriñ bi daal ku yittewoo ay teggin la sëriñ Tuubaa ku yittewoo ay teggin la yittewoo na ko feeñ na ci am mbindam feeñ na ci ay waxinam feeñ na ci ab yinam yaakaar naa bi mu tàmbalee waxtaan bi ba léegi tudd na ci ay téere yu wuute yoo xam ne da ci leeral bu baax a baax a baax sëriñ bi ni mu ciy jàngalee ay teggin ci ay xaaj yu wutee wute wute tàmbalee ko ci wàccuwaayu teggin ni mu amee solo ci yoonu murit ak ci sëriñ bi ñëw ci ay teggin ci boppam ci diggante nit ki nit ki ak moroomu nitam nga xam ne indi na ci ay yu wuutee wuute yoo xam ne yii ay ndinkaane la yoo xam ne sëriñ bi da koy jëmale ci kenn ca kenn kooku mu ko jëmale it du tee day dox ba ci jamono ku ci bëgg a jariñu man cee jariñu amaati teggin yoo xam ne nii dafa jëm ci diggante mbooloo ak mbooloo masalan yoo xam ne day jóge ci mbooloo mi nga xam ne ñooy dund ci dëkk bi wala ci réew mi wala ci kër gi ak seen ñeneen ñi ñu ko seqal ay wuute yoo xam ne daal teggin yu wuute yoo xam ne ci ay téere yu wuute yoo xam ne ak ci ay ndénkaane yu wuute yoo xam ne sëriñ bi tudd na ko fi waaye bi ci gën a amat solo mooy jataay yooyu nga xam ne sëriñ bi daana ko amal muy jotaay yoo xam ne da ci doon jàngale loo xam ne lu tënku lay doon te wuute lool loo xam ne mënees na ci saraalu lu yaatoo yaatu jataay yooyu it gis nañ ne ràññeeku woon na ca lool lu mu daa jàngale ay teggin jàngale teggin sax àggoon na ci sax léeg-léeg nit ki bu defee loo xam ne wala mu wax waxiin woo xam ne du noonu sëriñ bi da koy daal di jubbanti fa saasa loolu bokk na ci feeñ na ci biir waxtaan wi waaye it boo xoolee lam ubbee waxtaan wi dëgg dëgg dëgg day mel ni loola rek la doon saraawaat muy sëriñ bi dafa mel ni dafa fondement yoon wi ci xam-xam buy jariñ ak jëf ju baax juy jariñ waaye it ay ay teggin yu baax day mel ni loolu la ubbee woon kon dañu gis ne teggin dafa mel ni ponk la bu am solo ci yoon wi loolu sax moo tax ba mag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak sëriñ bi jeexiti yittewoo sëriñ bi ci ay teggin dafa feeñaat yi ñoom bu baax a baax a baax ginnaaw ba mu feeñee ci ku baax ki Mawlana Cheikhul Khadim radiyallahu taala anhu dafa feeñaat bu baax a baax a baax ci ñi nga xam ne ñoom la àndaloon ci ngebootam ci ñim doon yar ci taalibe yi yëmut sax ci góor ñi rek waaye ci soxna yi sax teggin yooyu nag moo tasaaroo tey jii ba nga xam ne ñi nga xam ne sax bokkuñu ak ñoom yoon wi bis bu set wala waxtu wu ne ñu ngi dégg ñu naan murid yi dañoo yaru murid yi dañoo ami teggin loolu lépp boo dee xool fa delluwaat rek mooy ci yittewoo gu ko sëriñ bi yittewoo woon ci njàngale mi ak ci liggéey bu mu ci def boo xam ne nii yëmu ci yittewoo rek maanaam mel ko melokaan woo ba noppi di ko jàngalewaat loolu moo waral euh, wax yooyu ñu wax waaye nag loolu bu mu tax ñu jàpp ne rek noonu la demee noonu la demee kenn ku nekk ci waxtaan wi yaakaar naa am na solo am solo goo xam ne ku toog rek danga am da nga gis sa bopp bu baax a baax a baax a baax a baax ci waxtaan wi ci ndénkaane yi da ci gis sa bopp bu baax a baax a baax day mel na daal sëriñ bi yow la doon waxal léeg-léeg mu wax loo xam ne da nga gis sa bopp bu baax a baax a baax moo xam ñaari way dencante la moo xam ñaar ñu ànd la moo xam ku jiite ak kam jiite la moo xam ab taalibi la ak sëñ ba ila axir yi yooyu yëpp mu doon wax ku ko diglu rek da nga ci gis sa bopp loolu day wane rek am solo waxtaan wi ci boo déggee waxtaan wi da xam ne gëstu na ci sonn na ci bu baax a baax a baax ndax ci ay téere yu tasaaro yu baree bari la dajale indi ko kon ñu ngi lay sant bu baax a baax ci turu daayiratu muxaddamatul xidma di la ñaanal bu baax a baax a baax ñuy fàttali ne euh, jataayu suba bi insha allahu taala almasarih euh, al islamiya wa turuqu tamwiliha maanaam naali lislaam yi ak yoon wi nga xam ne moom lañ koy sottale moom lañ koy amale kii amee waxtaan woowu insha allahu taala sëriñ Sambusu Abdourahman la euh, ëllëg ci waxtu wi ñi sant mbokk yi nga xam ne ñoo ñu doon topp yépp ci site internet yi rawatina site internet bi nga xam ne télé bi nga xam ne mi ngi bàyyi ko fii ci jumaa ji GMT TV di bàyyi ko fii ci jumaa ji ca daaira Muxaddamatul Xidma di ko saytu kon ñu ngi sant mbokk yëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.